nuyu ko ba noppi tàggatoo ak moom. Euh, asalaamaaleykum ajaratu. waaleykum salaam euh, Abdoulaye Ab Abdoulaye Bob doomu bàjjenu Seydina. naka troisième étage. troisième étage ñu ngi fii ñu ci jàmm di leen namm yenn waa deuxième étage. ah am nañ ci mbégte loolu waaye. am na waaw waaw loolu loolu rëy na yow xam nga moom saa su ne dañuy mbégte di jàkkaarloog yow. waaw ndax ndax ndax ñi ngay daaneel ci plateau bi day am na koo xam ne sax mu ngi doon nelaw ci wet gi. daa dégg rek mu ne uh-huh. <laughs> xam naa ne daal euh, sa sa sama xarit nga nag. dëgg la kay dëgg la. dëgg la xarit nga. dëgg la dëgg la euh, xam naa tey moom xibaar waaw xam naa tey yéen euh. nekk na lu loo xam ne li nga ci li nga ci indi am na solo doxu ñaxtu waa parti démocratique Sénégal. la ca mm-hmm. la ca mujjee am nekk na it lu yéeme. Mm-hmm. ak wàccaayu élection locale yi. Uh-huh. ak coowal livre Omar Sankare fës na ci tamit ak coowal dorog bi ak mondial 2014 ak lamb ji doon lu fës ci euh, xët yi waaye nag leneen lu fës mooy euh, jéego bi groupe Walfadjri fas yéene amal ëllëg ci samedi gi ma am ci mbégte lool ndax euh, rajo boobee ñu jagleel kàllaama réew mi Eh, su ko defee dañ ci mun a addu ci kàllaama séréer gu yaatu yaatu. waaw su boobaa danañ wane sa compétence ci wàllu euh, ci wàllu séeréer naa Dikk nag mm. wane compétence am ci wàllu alpulaar. Mm. waaye nag xam naa mm-hmm. euh, mbokk yi danañ ba xam ndax séeréer gu mokk na wala alpulaar gu mokk na. dana ah, leer bu dee man de mokk na. bu dee man yaakaar naa ne mokk na. ah yow mokk na. waaw yaakaar naa ko nag la waaw boobu baax na man nag li may li may laajte rek li ma doon li ma bëggoon ñu boole ko ci rek mooy lébu comme ça may may làkk lébu waaye nee nañ lébu wolof la non da ci da ciy bokk parce que mm-hmm. xam noonu wolof la waaye daf am façon wolofam <laughs> wolof la wolof la parce moom daanaka na wolof la sax waaye boo xoolee li ñuy làkkee waaw mm-hmm. daanaka ñoom rek ñoo koy làkk si ah, waaw ñun la ñun la kay ñun la ñoom moom macha allah ma laa gërëm di la santa jërëjëf di la gërëm yen ñaa ñëpp ma leen gërëm di leen xam naa xam naa xam naa ci rajo yi sax après président directeur général bu Walfadjri euh, dana ci euh, waxtaan ak ñun mooy suñu euh, gante ji ci petit déj mbokk yi ñu leen di gërëm yéen tam ci seen ànd ak seen kóolute gi dañ ci rajo télévision bu Walfadjri seen xaaj ñaareel bi la ñuy dikk ak yéen petit déj petit déj bon ñu ci woy ni ñu leen ko doon waxee nag ñu di fi waxtaan ak ki nga xam ne moo di ñoo ñoo ñoo di suñu chroniqueurs yi ñu ñëwaat fii ñu euh, tàggoon ak sànq ak docteur Gaoussou Sambou euh, dalal fii euh, président directeur général bu Walfadjri président Sidy Lamine Niass ñu lay nuyu. ok maa leen di fay di nuyu di félicité ci seen liggéey ak seen taxawaay. ñu koy ñu koy ñu koy gërëm président Sidy Lamine Niass bon moo ñu dolleeku ci ci plateau bi ñu nekk fekk Mamika ak Unaar Fatou Diouf Faye euh, madame Royukaay euh, tey bon euh, ngay nga dalal ngay nga dalal président Sidy Lamine Niass ñuy waxtaan ci ci ci kilifa diine bu bu mag nitu yàlla maam Khalifa Niass. waaw tey président directeur général bu Walfadjri Sidy Lamine la ñuy dara ci plateau bi ci royukaay muy doom ci ki nga xamante ne moom la ñu war waxtaanee di maam Khalifa Mouhamad Niass. Mhm. di ab royukaay bu mag di ab bindkat bu mag. boo xamante ne bàyyi na fi liggéey bu mag lu jëm ci wàllu tarixa ya boo xamante ne wax na ko ci livre am li nga xamante ne directeur général ci Lamine Niass bind mm-hmm. defaat ko en français traduire ko en français dañ ci ñëw largement sax balaa ñuy gën a sori ñu dem ci portrait Mame Khalifa Niass al xalifa al age Mouhamad Ibn Abdallah Niass mu ngi juddu ci ñax fukki fan ak juróom ci weeru juillet ci atum 1881 mu nekk nit ko xamante ne dafa symboliser bu baax li jëm ci wàllu tarixa tijaan ci biir àddina wërngal kàpp mu nekkoon bindkat bu mag doon taalifkat bu mag ak ab littéraire bokkoon tamit ci soufisme mu ngi wuutu kii di papaam El Hadj Abdoulaye Niass ci fukki fan ak ñeent ci weeru juin ci atum 1922 xalifa Niass nekkoon nit koo xamante ne da gën a yokk lii di daraja islam rawatina lii di tarixa bi saytu nit ñi nga xamante ne dañoo nekk ci ay jafe-jafe di leen si yàppale saa su mu waree teg ci tamit nitu jàmm la woon ndax li bëggoon nit ñi booloo nekk benn nekkoon na koo ni tamit da doon faral di am ay commentaire ci bépp événement boo xamante ni da doon xew Xalifa Mohamed Niass dafa nekkoon nit ku yaatu looloo tax mu amoon relation bu rafet diggante ay confréries yi waaye tamit ci bitim réew bokk na ci dëkk yi ci mel ni Maroc Arabie Saoudite ak yeneen ginnaaw poète bi mu ne woon ak écrivain nekkoon nit koo xamante loolee dem na sax ba bind ci ab livre ci benn fan ci weeru mars 1959 kaw Kaolack la kii di Xalifa Mohamed Niass génn àdduna bàyyi fi ay téere yu méngook jamono teg ci am solo loola. mu doonoon bon nit waa yàlla koo xam ne daanaka euh, jaar-jaaram nekk na it lu lu yéeme lu am solo Fatou. pas. waaye si livre bi wax na ci ay poñ yoo xamante am na solo boo xamante tey nit ñëpp mën nañ ko yittewoo lu ci mel tarixa tijaan mi nga xamante kooku ibne maya mayaba da ko doon critiqué da ko doon ŋaaññi ñu ngi ci réponse wax na ko ci biir livre bi lan na ci mën a jàngal. waaw jërëjëf li ma ci indi mooy dafay wone ne l'islam tarixa tijaan débat daf cee am duul ne dangay wax rek kenn du ko dindi waaye da ngay wax nit di wekki nga koy tontu su waxee nag ci lu duwul xam-xam comme ni muy xewee tey ibnu maaya ba loolu rek la woon dafa doon wax borom xam-xam la nag moom waxul ci lum xamul ndax professeur de chaire la buy jàngalee ca màkka taw ba yàgg mu xool tariqa tijaan ne lii daal ak kéefar la jël nag ay baat comme ni niñ ko gisee ci fan yi ñu koy def naan baat bii du arab baat bii du nangam asqam bi ñuy wax ci jawharul kamal ne du arab ak yooyu xalifa ñes ñëw ne ko kaay ma jàngal la arab gannaaw yow araab nga waaye nag yëfi yi xam-xam la ku ko ci sab der jël nag noonu la ko jëlee ci ay réponse am kaay ma jàngal la alquran li ngay wax lu ñu wax rek nga ne araab na yàlla wax na fii yonent bi wax na fii di ko démontreel donc téere la boo xam ne méegi nii moo tax boo ko liiree ci français comme boo ko liiree ci arab boroom xam-xam ngay gis muy tontu kon loolu mooy importance importance mooy ñu xam ne ñi ñu amoon du ñoo xam ne dañoo tëdd rek naan bu kenn waxati bu kenn yëngatooti bu kenn defati nangam dañ doon liggéey ci xam-xam. ci wax ne euh, la tarixa tijaaniya c'est la vie dans globalité di ci wax ne euh, di dafa nekk tournure politique politique dama nekk religion te islam tey nekk islam démb. très bien. c'est-à-dire comme ñu bëri dañoo defee ne philosophie rek moom moo jël en compte la vie ba nga xam ne suñuy wax ñaare di wax politique di wax ay yeneeni mbir dañuy defee ne loolu philosophie rek moom moo ko jël fekk déedéet mysticisme moom itam jël na la vie active ci ay préoccupation looloo tax ma ne la Tijaniya ya dans sa globalité la vie soo demee euh, ni nit ki di dundee ni muy sellee ni mais amee dund bu neex ni muy mun a épanouir ci biir njabootam. ba àddinaam baax ba pare nag ad àllaaxiraam mun a baax daf ko jël en compte kon bu ñu jàpp rek ne dund bi walla tariqa dafa teggi la vie ba ne dund bi bokkul. donc yooyu jéem naa ko expliquer dugg naa ci sax ba ci école occidentale yi nga xam ne euh, jéem nañoo jël expliquer la vie jéem ko euh, monopoliser en quelque sorte pour ñu foog neer ñoom rek ñoo xam dund ñoom rek ñoo la mun a jox euh, bien-être ñoo la mun a jox teraanga ba tax ñu bëri di leen toppandoor par mimétisme man la déedéet jaru ko mhm. fi nga nekk teraangaa ngi fi kon loolu jéem benn pont laa def diggante téere bi ak école yi nga xam ne ñi ngi fi ci àddina bi tey tasaaroo pour wax la ne la lii mun na joxe ji ci la la lële mun naa yóbbu ba ci àllaaxira su ko defee nit ki am ñaari dund yu gën a neex donc préface bi loolu la gën a dugg li ma wax nag politisation mooy nit ñi def nañ tariqa tey mbàttu yelwaan tey dañuy ne dañuy def benn géew pour diw pour màggat waaye su lan lañ fay dajee di ko tuddee diw di ko yelwaanee di ko loolu taxu koon a jóg yooyu nag mooy su ko defee nit yi politique ki waroon a def benn meeting fay ci lu dul jeex ne naa dem ci jàng ya mm. su ma ñu demee ñu jox ma parole ma wax fa ay defee ma génn génne laa ko loolu yooyu nag loolu moo commencé dégradé diine moo commencé dégradé tariqa moo tax ñu bëri léegi buñ demee ci géewu diine dootuñ fa fekk diini waaye politicien bi nga xam ne solo na ñëw ànd ak benn groupe bi politicien babooram ñoom ñooy ñëw pour récupérer la religion. wal loolu war nañ ko waroon nañ koo daw. waaw ba tey ci biir livre Adjaratou Ndeye Astou pour wane rek euh, li nga xamante ne maam Khalifa Niass moom la bind. boo sukkandikoo boo duggee ba ci biir da nga xamante ne day servir ñun ñun euh, jullit yi. parce que dem na ba wax ci euh, lu jëm ci wàllu ay péché. nit koo xam ne dafa def ay bàkkaar def 99 péché bay def centième di am benn anecdote bu ñu ci raconté ci sax ne Allah pardonne tous les péchés sauf l'associationnisme que euh, c'est-à-dire Allah ne ne ne ne pardonne pas qu'on l'associe autre divinité. c'est ça wax nañ ko ci. ay alquran ci ay alquran boo xamante ne day servir lu bari ci biir téere bi. waaw c'est ça c'est-à-dire foofu dafa joxe benn anecdote rek benn waay bu reyoon yonent bi moo ko nettali juróom-ñeent fukk. ak juróom ti lu jiitu sax lislaam la waaye lislaam daf ko raconté waat mu toog nag ni ah waaw man li ma def yëpp ak péché yi kan ma mën a baal ñu ne ko amul mu dem ci benn euh, curé ne ko wax ma lan laay def mu ne ko yow dara mënu laa baal yow booy dee dem safara mu ne ko kon nag ma boole la ci muy téeméer <laughs> mu demaat ci beneen waay ñëw ne ko man daal rey naa téeméeri nit waaye nag man daal lépp lu ma am rek tuub dellu ci yàlla moomu ko gënal ndax mun naa baaxaat dellu ci yàlla mu ne ko waaw waaw lu la teree baax waaye nag da ngay génnee fii nga nekk yow fi nga nekk mooy millier bu bon millier dafa am influence ci nit. Hmm. génneel fi nga nekk nga dem ci beneen place. ñi ne nag muy dem ba yeggul après mu dee ci diggante bi malaaka yi yóbbu safara di ko njëkkalante ak yi yóbbu aljanna ku nekk ni ñun suñu wàll la jox leen ñu ko. foofu nag mu am benn malaaka bu sol yére yi nit ñëw ne leen déet kaay leen ñu natt fi mu jógee fi muy dem ak fi mu jógee bu mu gën a jege. ñu ne fi muy dem moom la gën a jege ñu ne yu aljanna yi ne jox leen ñu ko. kon bi pour wax na ne nit ki def effort ba passé benn moitié te fekk mi ngi woon ci lu bon sax génn na ci lu bon mu ngi jëm si ci lu baax joxe na anecdote yu bari yuy wane tuub yuy wane mbaax yuy waaye moo tax toujours daf koy booleek ay xissa yoo xam ne dana la faciliter lecture bi loolu euh, li ma la ci dolli rek mooy téere boobu ñetteeli téere la tariqa tijaan ñetti téere la am bii moom lañuy ñuy wax jawaahirul maani maanaam mooy takkaay yi moo tax Seydina Ahmad tiyaan moo ko dicté ku ñu wax Seydi Ali Harazin muy dictéem beneen bi moom la ñuy wax rimaax mi ngi ni ñoom ñaar lañ boole fii Cheikh Omar Fouti mooy firi les les euh, euh, les lances ne ku am or da da ngay am xeej yoo ko sàmmee Khalifa Niass nag bind jiyuus les armées ne xeej kat doot soo amee xeej te amoo ko ko gàddu dañuy gàddu xeej bi gàdduwaale alal ja nga am moo tax ñetti téere yi soo ko boolee jawaahir rimaax ak juyuus ñooy ñetti téere yi nga xam ne ñooy pilier tariqa tijaan mooy bi nga doon cité noonu donc mu bokk ci yi nga xam ne édité nañ ko waaw livre bi bon euh, mu wax ci wàllu euh, ya mais ki nga xam ne moo di ko ko bind di se di sa waajur waajur bu góor euh, lan nga ñu mën a dollil ci ci ñu ci ñu ko xamul parce que comme moom mooy royukaay bi. waaw moom lu bari c'est-à-dire la ci senegale yi jaar na ci ndaw jaar na ci mag ba xëy nekk màggat maanaam ba am juróom-ñett fukki at ci biir loolu li nga xam ne moom la njëkk a def mooy déggal waajuram waajuram yar ko bu jigéen bi ak bu góor bi euh, biñ ko yaree depuis bi mu nekkee xale jàng jàng boo xam ne rafetal na njàng ma xeetu xam-xam ndax yëpp li tax muy mun di tontuwante ku nekk ba Arabie Saoudite nekk fa référence di Maroc ñoom Seydi Sukayrij di taxaw di def loolu référence taxaw di ko bakk di di ci di ci ànd li tax Mauritanie ñëpp doon ko mokkal ci jamono jooju jàpp ne kii moo leen jox fuñ dëgër c'est parce que xam-xam ba dëgër na kon fexe na ba xam-xamam dëgër gannaaw bu yaram rafetee fexe na itam ba dundam yépp muy joxe lam amoon su xëyaan suba teel di jàngale ba heure yi añ ñu door a tegg añ bi waaye fekk na mi ngi jàngale niveau bii buñ paree beneen niveau pare beneen niveau pare ndax enseignement classique bi noonu lañ doon jàngale kii laxdar yu kii risaala kii xalil kii ajaromu noonu lañ ñooñu njàngale moom mu nekkaan daan nañ toog daan nañ teg booli lekk bi bu ñëwee dafay booru comme ñëpp duwul ne moom jox leen ko ab bool à part waaye dafa daan booru c'est-à-dire dafa wuteewoon ak sëriñ si carrément daanul tëju. maanaam daaw kenn daaw ko beral boolam. kenn daan ko beral daan bokk mbooloo benn daanul tëju pour boo ko buggee gis ñu la sëñ bi dafa ubbi ubbeekoogul daanul euh, toog ci kaw ñu la mu nga ne dafa daan toog ci suuf yooyu yëpp. ay boroomi xam-xam seedeel nañ ko ko ci biir bi ñuy def biographie am dafa daan toog ci suuf daanul tëju yax yaxtajib pour ñu ne la xaaral mënoo ko gis nit ñoom anecdote benn ba ku liir téeréem rek daw ñëw bi ñëwee foofu fekk ki nga xam ne mooy nekk ak moom euh, wa waa Banjul la euh, Modou Niang bi mu ñëwee ne góor gi xalifa Niass laa bëgg a gis fekk mi ngi ko doon mi ngi taw woon léegi mu koy wat mu ne ko moom laa doon wat mun ne ko waxuma kooku borom téere bii laa la wax moo ma tax a jóg nga naan ma ki nga doon wat léegi mu ne ko am ah, moom la demal ci néeg bi mu nga fa. ay eh, lépp ah, nag muy wane ak woyof. waaw bi mu baal ma bi mu yéggee ci néeg ba ñu toog ba mu yàgg rek muy dégg ñuy wax rek mu dégg waa ji naan hap di di di di yéemu mu ne ah xamoon naa ne bu gisee sama góor gi de da dana xam ne woyof terewul boo ko. boo waxee ak moom gis ne diis na donc li nga mun a jëlee ci moom mooy oyofal toy dans ta vie ci sa solo ci sa doxin ci sa lekk ci sa lépp mais diisal gan ci sa xam-xam ak ci sa jukko bu fekkee roy teef mun na royukaay mun nañ ko cee wax mm-hmm. mu di royukaay Fatou mu nekkoon ab taalifkat aussi bu mag boo xamante ne li mu doon bind euh, d'après li ma sukkandiku ci livre bi am na yu tellement ay point ci intéressant parce que wax nañ ci lépp booy seet day mel ni jamono démb ak tey boo ko boolee dafa allié daal démb ak tey loolu lay nurool ci ay poñ yu bari yoo xam ne intéressé nañu euh, bu ñu peut-être euh, président directeur général. loolu laa ci bëggoon li ma bëggoon yow yaa ngi jàng français. daan nettali nit ñi dañ daan nettali ay la nett la wax ibnu Maaya ba ay eh, ba tonton ibnu Maaya yéem bi rek moo amoon. tey nag yow yaa ngi nii xamoo ko dëkk nga fu sori jàngoo arab jàngoo leneen liir nga ko ba tey mën nga cee waar. ka nga xam ne mu nga toogoon di wax naan lan la wax ibnu Maayaaba tey dootuma dem di ko naan xaaral boroom xam-xam bi ñëw xaaral doomi xalifa ñas ñëw tey dama koy daal di wax ne ko demal jël madame Faye rek jàng na jëlal sa doom bu jàng français mu liir ko bu ñëwee kooku moom moo la ko ci wax loolu laa bëggoon mooy mu jege nit ñi ba nga xam ne tey yow yaa ngi koy wax te lii man waxuma la ko danga jël téere bi rek liir ma yem ci ak yow euh, ci Ibn Mayaba boobu dañu is moom jullit la woon ba pare di ngaañ islam teg ci. waaw duwul euh, question duwul problème mu jullit ak ñàkk jullit fii. Mhm. fii problème mu ñu ànd ak tariqa ak ñu weddi tariqa. cest à dafa am ñoo xam ne côté technique xam-xamu grammaire naxwu rhétorique muy li ñuy wax balaaxa ak yenn ni xam-xam boromi xam-xam la ci loolu ñoom foofu rek moo doon sukkandiku mënuñoo gëm nag li nga xam ne ay yëg-yëg la li ñuy wax santiment al wijdaaniyaat wirdo naa ba yëg nangam dem naa ba yàlla waxee ma dem naa ba gis yonent ba def nangam pour ñoom loolu vraiment munta bokk ci diini bokk ci diine dañ ko weddi dañoo wax nag ne ci alxuraan lañ ko sukkandikoo indi ay aaya donc lim njëkk a nekk avant ngay nekk ne ŋàññi la wala du ŋàññi lim njëkk a nekk mooy am na lu ñu munta dégg soo demee ci biir wax na ko nee na nag dañoo mànduwul bi xalifa Ñas bi neen tontu nee na dañoo mànduwul ñu màndu woon liñ xamul dañuy wax ne ah ñun am na fu suñ xam-xam waaye duñu wax ne liñ xamul amul foofu lay waxee moom borom xam-xam dafa ne dañoo waroon a wax ne yàlla bind na loo xamul xam le na loo xamul waaye seen ñàkk a màndu moo tax ñoom luñ xamul rek ne bokkul ci xam-xam Mhm. loolu nag moo tax yéen li ngeen xam xaaj la waaye beneen bi itam nag lii wane ne xam-xam la boobu itam ñun fii lañ sukkandiku donc d'abord débat la débat bi nag ci biir waa ji gannaaw moom dafay ñëw rek di daaneel au lieu mu daanelee ko daaneeb lii wóoruma wala lii mënuma cee ànd daf ko doon daanelee daaneeb lii baaxul lii kéefar la lii nangam ñi ngi koy gis ba léegi débat boobu ba léegi am na ñoo xam ne tey bu ñu lay weddil mbiru gàmmoo di la weddil mbiru wirdo di la weddil mbiri yu bëree bëri weddi soo ko defee rek éefar nga c'est-à-dire dafay mel ni ñoom ñooy joxe certificat yi bonne foi ñoom ñoo lay def jullit ñoo lay def éefar yooyu Xalifa Ñas wax na ko ci biir fàttali na euh, waxu ku wax li dem ne éefar nga yéen ñaar kenn la ci kon war nga prudent boo koy wax balaa moo delsi ci yow ndax boo ko waxee ku ko doonul mu delsi ci yow moom itam war na prudent ba jikko jooju mu nekk ci moom moo tax débat boobu la xaw a indi donc ñi am na ci c'est parce que borom xam bu prudent wul dafay yomb ñi waaye itam débat ngi ci puisque ku yegg ba foog ne xam-xam yëpp mooy la nga xamoon fekk am na lu nekk ci gannaaw loolu loolu itam mu ngi ci biiram moo tax sa papa al Khalifa Mohamed Niass tontu ko ci ay ay prose yoo xamante ne mu ngi ko ci qualifié loo loo xamante ne képp koo xamante ne jéem a euh, discrédité li nga xamante ne mooy religion islam rek. c'est ça. Mm-hmm. indi na indi na effectivement bi muy tontu da nga gis ne looloo tax bu tuddee ko armée dégg nga xam ne dafa wane nag ne dafa ñëw pour xeex ndax li nga koy indil ak fi nga koy laalal ak li nga koy bëgg a sànnil pour moom tool la boo xam ne daf ko war a sàmm looloo tax mu ne dama ñëw nag pour xeex. puisque bii yoon liñ ma laalal kenn mu ko laalal sama xol sama pas-pas sama ngëm-ngëm sama li am sama yaakaar sama xam-xam kenn du ñëw rek sànnil ma ko moo tax da nga gis ne quelque part ku dëgër la waaye nag bul fàtte itam ne xam-xam euh, armée la ko tuddee dafa xeex si am na yeneen yi nga xam ne dafa ñëw pour wax ci yonent bi pour melal ko foofu da gis waxtaan wi pan ci toujours ci na ñuy dindee. Mhm. ci biir ba tey bu ñu ñëwaatee ci biir livre bi d'après li ñi nga xamante ne xamuñu ko te bëgg nañoo xam tamit est-ce que mën nañu xam ci biir livre bi yan ponk tamit la xam la la moo nekkaat ci biir livre bi pour ñun ñi nga xam ne xamuñu ko. waaw ponk yi ci livre bi en tout cas bi ñu def ci français moom pour le moment. Mm. mooy boobu nga xam ne soxna si wax na ko léegi te nga xam ne tontu waaye ci biir tontu ba nag moom suy tontu ci benn page. dana ci cité fukki bindkat foofu la xalifa ñu wuteeg ñu bari cest dire wax naa ko sax man bi may préfacé ne naa ñu bari dañ daan coupé collé dañ daan dajale yu bari ci boromi xam-xam la ko indi laay aay indi nangam moom nag day cité rek pour référencer la kon bu jëlee ci benn mbir dana la ci indi yi ngay soxla yu bëri léeg-léeg mu indi la ci philosophie léeg-léeg mu indi la ci sagesse léeg-léeg mu indi la ci yu bëree bëri domaine yu bëri ba nga xam ne domaine yi nga xam ne yow da nga koy soxla daanaka boo ci génnee par exemple léegi soxna si wax na ko ki nga xam ne mu ngi péché nekk am ay ay bàkkaar mm. mi ngi koy won ne ko bul dem ba découragé mm. taxul nag mu ne ko defal li nga nekk déedéet wan na ko ne ko moytul dana ko jàngal jàngalu moytu waaye dana ko jàngal jàngali ki nga xam ne dem na bay bëgg a découragé ne ko déet bul découragé nag yëfu yàlla itam buntalu bu ay yu bëree bëri yoo xam ne nit mën na ko cee jëlee ci ay xeeti xam-xam xeeti xam-xam yi ci abordé soo ci gisee da nga gis loo xam ne rhétorique la da nga gis loo xam ne grammaire la da nga gis loo xam ne philosophie la da nga gis loo xam ne astronomie la da nga gis loo xam ne astrologie la ndax day embrasser xeeti xam-xam mais nag gannaaw jàngalekat la daf koy wax en pédagogue hmm. da ko wax mu difficile ba nga taxaw ne suu lii de mënuma koo dégg dafa compliqué dafa <laughs> la koy indil hmm. ba nga xam ne ci biir ni ni muy tontoog ni muy waxee da hmm. da ko mën a jëlaale yow mi nga xam ne nee nga lii de man xawma ci woon dara jànguma diine ma ko jànguma alxuraan ma ko danga koy jël rek ba pare daal moom mun naa koo dégg comme ni ma munee liiree livre tel ou tel français bu bind dans tel u tel domaine domaine bi itam nekk na domaine boo xam ne c'est accessible mun naa ko lire mun naa ko est-ce que mun nañu xam titre titre livre bi ak titre livre bi lan lay tekkee waa tekki waaw titre livre bi Juushatullaa mooy armée yu jóg ànd ak seeni xeej pare défendre hmm. bil murhafatil qutta hmm. ànd ak seeni xeej ak seeni jaas yoo xam ne yu ñëw la mu ne nag raddan ila ibnu maayaaba axit tanatto mu ne di ko tontoo ku ñu wax ibnu maayaaba bi nga xam ne dafa dëgër bopp ba loola mu gëm bugg daaneel loo xam ne mm. kenn waru koo daaneel donc tontub livre bi tontub armée de euh, num tati euh, euh réplique la euh, aux, aux mm. donc tontu la ci ku ñëw di ŋàññ ak di dalsi dem na sax ba joxe nañ ay anecdote ñoo xamante ne dañ ko ay ay proche dañ ko doon repousser parce que bëggatuñ ko parce que li waxoon dafa rëy ba ëpp hmm. bokk na ci yi nga xamante ne penché wu na ci également exactement puisque Ibn Maya ba Mauritanie la dëkkoon bokkoon ci benn giir bu ñuy wax Tejakant Tejakant dañu am xam-xam ba Mauritanie dañ lay wax ne al ilmu jakani Tejakant ñoo ko moom ndax yiñ daan waxee xeetu xam-xam waaye bi mu demee dugg ci tiijaan di ko attaqué di attaque yooyu mu xamutoon dem na ba fu mu dem xat fa mujj gi mënatul a dëkk fenn fu mu ñëw rek ay nit ñëw tapas ko joteeg moom mooy ñu ngay gis rek ñi tapas toujours di ne da ñoom itam dañ dem ba xat dañuy dem ba di leen wut lu leen gardeel parce que dañuy gis nañ ne laal nañ xolu nit ñi te nit ñi solaale seen xol ñoom itam dañ réagir parce que action réaction xam nañ ko ci physique mais xam nañ ko itam ci sociologie donc looloo taxoon euh, Ibn ba xatoon na loolu nag mu mujj génn dem Maroc xataat foofu mujj génn dem Arabie Saoudite mu ngi doon jaabante diggante Jordanie soo demee Jordanie ay taalibe ma fa nekk royaume boobu sax ay euh, ñu koy topp ñoo fa ëpp diggante boobu la nekkoon di jaabanti donc nit la koo xam ne daanul toog benn place donc loolu xalifaa nga ko expliqué El Hadj ci ci ci ci biir kii donc topp na ko ci histoire am topp na ko ci argument am topp na école am ci yi nga xam ne moom mooy seen argumentaire yooyu yëpp mu jéem ko expliqué. Mm-hmm. et pour delluwaat ci vas-y tu donc tout à dama déggoon euh, muy wax lu am solo euh, ci tarixa ya mais également muy wax itam euh, ci beneen po ci maam Khalifa Niass. mooy que ni dafa daan wérd ba gis ba ba yëg boppam ba muy wax li nga xamante ni que mooy euh, gis naa yàlla genre yooyu ni dem mel donc loolu est-ce que mën nga ñu ci revenir atal ban rapport la am ak euh, tarixa na Ahmad Tidiane waaw c'est-à-dire sax maam xalifa daanu ko wax waaye nag ay Tidiane danañuy wax lu mel nii nga wax loolu mu ñëw trop ci langage mhm. waaye yëg naa yàlla ci sama biir bokk naa ak moom am proximité ak yàlla kooku benn xeetu exotérique la boo xam ne ay euh, école la à part bu koy jàng bouddhisme yooyu yëpp nag soo ci duggee genre wone ne euh, kenn euh, mooy entre le subjectif ak l'objectif est-ce que Dieu lu nekk à la sori nit nekk à nekk fii su ko defee mu am ñaar yàlla wax na ne ñaar amul lenn moo am est-ce que lépp benn la ba nga xam ne ku nekk itam mën ngaa wax ne yàlla kooku aussi ku nekk mënoo nekk yàlla yàlla moom rek mooy yàlla ci biir loolu daal domaine la boo xam ne comme ni ma la ko waxee c'est entre l'objectif la responsabilité ak lu dul responsabilité mm. kañ ngay dem ba nga xam ne te responsable yàlla soo ko xoolee jikko yim am yépp jox na ko nit yàlla jox na nit xam-xam kon mm. aalimu nit itam nekk na aalimu yàlla lan la buur def na nit muy buur kon jukkoom yi bëri ak qualité yu bëri able na ko en quelque sort kooku mu ko abale wërsëg mooy wërsëgle jox na nit muy wërsëgle ainsi de mm-hmm. suite bëri na ay quali qualité yoo xam ne dana koy able kon nag able boobu mu koy able nga taxaw daal di ne man maa ngi def nangam à la place wala maa ngi euh, wala nga wax baatab yàlla bi mm-hmm. loolu euh, mystique yi su ko defee nag foofu danay indi débat bu xaw a jafe mais débat la boo xam ne c'est beaucoup plus mystique philosophique que mu nekk un débat réel nga mun a wax réellement ndax le tout munta nekk un munta nekk enfin euh, globalité munta nekk partialité mais su ko defee débat boobu nag ak ñoom la ñuy yëg suñ wirdo ni ñuy génnee ci état boobu puisque comme ni nga koy waxee wirdo euh, soo ko gisee mooy li muy tuddee man la troisième dimension la première dimension mooy la formation bi nga jàngee fi ngeen jàngee tey ute ngeen ak ki jàngul ndax yéen a ngi téye ay këyit di ko yër ba ki jàngul dafay xaw a wax waaw ñii dañoo dof ndax ab këyit rek dana mun nga koo xool di ci wax loo di ci wax ay mbir kon kooku am ngeen lu ngeen ko ëppale muy la formation ngeen bi mooy euh, nu mu euh, euh, li nga xam ne moom la mystique bi di moom itam daf lay jëlee ci dimension yóbbu la mooy l'invocation nga dem tuddi yàlla ba nga xam ne jógee nga ci sa étape bi nga xam ne lépp tout était réel sa wërsëg wi sa juróomi dërëm yi nga am lépp yaa ngi ko doon jox mesure nga yóbbu ko ci beneen étape bu gën a yaatu ki am li nga amagul ainsi de suite donc am na l'info am na am na l'invocation am na itam la formation yooyu yëpp nag soo ko boolee dafa lay dugg ci yeneen yeneen domaine yoo xam ne yoo xaw yaatu la moo tax débat boobu c'est un peu difficile mooy bañ a loo xamul puisque xamoo ko euh, dugal ko nag ci débat ne danaa ci laajte su ko defee suñ ma ci waxee loo xam ne mënuma koo dégg ma boole koog loo xam ne mënuma koo dégg di xaar ba ba ma koy mën a déggee waaye jàpp ne nag fii ak mënuma koo dégg bu boobaa loola sama benn incompréhension la moo tax nag ki ko résumé mais benn nitu yàlla boo xoon ne kalaamul awliyaa i lastu afhamu li anna nii ana ana wa hum hum mu ne waxu nitu yàlla yi daal mënu mu ko dégg mm-hmm. ndax man man la ñoom ñoom lañ mm-hmm. donc nga nangu ne mm-hmm. am nga limite ñoom itam ñu nga ci seen biir limite le droit à la différence day am le respect de l'autre dafay daal di taxaw kon Adjaratou Ndeye Astou nañoo résumer ne royukaay la parce que lu mu def ci livre bi euh, rey na ba tey tey mën nañ ko utiliser ñëpp euh, mën nañ ci résumer que euh, réponse mu def kii di Ibn Mayaba nekk na loo xamante ne day wane kon nit lu mu jàng-jàng warul tax mu dépassé warul am nihilisme boo xamante ne ba tax da war a def ay calomnie di ko def ci biir religion bi nga xamante ne euh, c'est au-delà mm-hmm. nit dépassé na ko ci esprit mën nañ ci résumé la nga ci mën a résumé waaw absolument yaakaar naa ne loolu rek nga wax euh, nit ki daal loo am am xam-xam al euh, yàlla fooka kullu zi ilmin alim loo am am xam-xam am na xam-xam bu nekk bu nekk ci gannaaw loolu bu gën a kawe loolu kon nag euh, loolu lay njëkk a indi euh, te yomba weddi yomba xaste yomba wax nangam lu nit wara daw la te xam ne yow mi toog bay weddi xëy na lu tuuti rek nga gis te fekk lu bari réer na la loolu aussi sagesse yooyu itam ñëw na ci yow mi woote xam-xam ba tax ngay dóor sa dënn ne keneen nekkul ci dëgg ku wax lu wuuteeg li ma xam xamal ne tuuti nga xam ñi ci des am nañ lu bëri donc mm. humilité daal moom mooy buntu xam-xam kon il faut être le respect moom mooy buntu xam-xam mm. il faut que nga respecter les autres déglu leen ba nga xam ne da nga mun a xam exactement lan moo leen poussé su ko defee nag waxtu looloo amee moom mooy buntu xam-xam bi gën a yaatu Euh, waaw man daal li ma ci indi li ma ci yokk te jëlee leen ko ndax tey dama indi kàggu mooy comme ni ma ko waxee xam-xam bu bu doon nelaw la ndax lii ma la indil du dama tëb rek imprimer luñ imprimer woon lii manuscrit la gis nga ku ci daan sonn la. moom moom maam Khalifa ci boppam moo ko. dafa amoon tuuti dafa amoon tuuti une équipe autour de lui. Mm-hmm. amoon na ñoo xam ne ay bindkat rek la bu ko defee ñu leen di jox ay calligraphe lañoon dañ daan jël ay couleur gis nga couleur rouge ak yeneen couleur yëpp dañ ko daan jël di ko utiliser lii daf ca sonn lool ba def ko moo doon sa dernière volonté bind bi muy génn àddina ne lii nañ ma ko taxawaleel lii moo tax bi ma ñëwee en 96 ma jël ko euh, daal di ko édité ci turu Walfadjri édition ndax Walfadjri dafa am édition donc ñetti téere yi ci laa ko njëkk a bi bii muy xaatimatu durar juus bi ñu doon wax léegi première version bi euh, troisième bi mooy kibir yi laa ko njëkkoon a éditeel bi ñëwaatee ma trouvé waat na beneen manuscrit boo xam ne am na presque quatre-vingt-dix ans ba mu ca pare ak léegi ñu ñu bëri dañ ko daan dégg mais mosuñ koo gis dañ daan dégg tur wi rek waaye mosuñ koo gis tu vois muy manuscrit nekk nii ma gis manuscrit mooy lan euh, bi projet de société islamique yëpp la ci def hmm. c'est-à-dire théorisé na l'islam ak euh, kaaraangeem ak ni war a taxawee ba nekk expliqué na la diplomatie islamique mbooleem lettre bu mës a bu yonent mës bind wala buñ ko mës a tontu wala réaction bu am ak yooyu yëpp pour nga xam la islamique yëpp expliqué na ko expliqué na ci ne l'islam lim daan xeex duutoon ku demoon rek di xeex di toj waaye dafa daan jàngale dañ daan ànd ak ay jàngalekat yu lay jàngal yoon pour nga xam foo teg sa tànk di la jàngal nuy dundee le côté social di la jàngale yu bari moo tax mu tënk ko ci ñeent ñeenti baat wufuut saraya ak boos c'est-à-dire saraya yi mooy xeex yi wufuut yi mooy diplomatie yi euh, Euh, bu aussi mooy jàngalekat yi donc kooku aussi ñu édité ko édition bi itam édition la boo xam ni bu kawe la la ñu ko urus en même temps ñu liggéeyee ko Égypte donc édition bi édition boo xam ne bu bu kawe la ci téere boobu nga xam ne mosuñ ko édité ak beneen boo xam ne édité woon nañ ko miroir de la pureté nga xam ne moom édité woon nañ ko waaye dafa dem ba amatul ci bibliothèque bi ak bi nga xam ne édité woon nañ ko mais dama ko reprendraat def li ñuy wax rewriting reprendraat ko pour mu accessible gën a gën a yomb lire gën a facile traduire ko en français donc en quelque sorte duutam loo xam ne dama koy bind rek su ma paree mu yem fii ci biir dëkk bi def am coow daal di kii déedéet bi ma ko defee en mboolem chercheurs yi ci àddina bi mu na leen intéressé tariqa tijaan intéressé na leen ba ki nga xam ne mooy Jean-Louis Triaud ak David Radisson def nañu benn édition tuddee ko Tijaniya te fekk bokk na ci li ñu déparé mooy loolu ma defoon dayar moo tax soo ñëwee ci biir dañuy yebal benn professeur mu ñëw assister xew-xew ba mu ngi koy relaté le 9 mars 96 wax Kaolack ak la ca xew ak ba mu ko exposé indi mm-hmm. indi liggéey bi donc luy am ay kii yuy am ci àddina bi boobu léegi gis naa combien de thèses de doctorat yoo xam ne reprendraat nañ xalifa Niass yii ca Libye yii ca Koweït yii ci Amérique d'ailleurs bii yoon am na ay américains yoo xam ne ñëw nañ espécialement pour daje bi suba pour ñu ñëw euh, ut si téere yi war ko gëstu am na ay allemand yoo xam ne ñëw nañ ñoom itam mu intéressé leen ci seen bibliothèque donc Euh, dimension boobu ne ñun li ñu am dafa am dimension internationale si mag yi liñ liggéey du am barkeelu rek ak woy yu ñuy woy yooyu yëpp am na ci la côté art le côté nangam barke am na ci waaye nag xam-xam la boo xam ne itam addinaa ko soxla ñu war ko partagé ak moom loolu itam dana ciy feeñ moo tax bi ma ñëwee ma won euh, mm-hmm. volume yooyu pour won la feedback bi muy faral di am muy benn mm-hmm. ba bale amoon te bii bi ci nar a am moo gën a rëy deuxième bi mu woon la itam démarche bi depuis manuscrit yi ba yegg si troisième bi nag mooy ma fexe itam ba boole ci ñett ñoo xam ne ñoo bokk benn démarche te bokkuñ génération Cheikh Tidiane Sy il est poète il Al est écrivain Al Maktoum il est il a la même démarche et il est contemporain xalifa Niass dégg nga euh, écrivain ainsi de suite Maam Borom Touba ne mu mel ni doom la ak baay ak maam tey boo ko jëloon rek tey ci senegaal war naa mun a benn le kër yi mooy xa euh, Cheikh Tidiane Sy mooy doomi Khalifa Niass Khalifa Niass mooy doomi Sëñ Touba su ko defee loolu suñ ko amoon tey ba compréhension boobu doon na facilité lu bëri au lieu ñu ne déedéet ki diw mooy kii am ndax nangam la sant déedéet kii ndonol kii la kii ndonol kii la li nag tax na ñu nekk ay ndono ku nekk ci moromam mooy ñoo bokk luñ doon def ñoo bokk luñ gëm ñoo bokk ay mhm. démarches donc yooyu itam moo tax ak yu bëri yoo xam ne dañ ko expliquer ca place ba mm. pourquoi Massalikul Jinaan pourquoi Cheikh Tidiane Sy l'œuvre et Niassène le parrain Tivaouane nu mu tëddi l'endroit et Touba donc yooyu yëpp nag nekk limité. bon loolu yëpp danañ ko leeral euh, suba ca Massalikul Jinaan euh, à 14h. incha allah 14h incha allah xam naa xam naa balaa ngay dem ñu ñu xel la kafe. man dama war tey ñetti fan yi diggi weer. dafa baax a woor surtout nag bu suba bi nga xam ne fukki fan ak juróom yonent bi sallallahu alayhi moom la ñuy wax kooru gàtta ngi euh, moo tax nag démb ak suba moo tax waaye waa ñu ko xamutoon xam <laughs> ne suba rafet na ci ñu ko ñu ko bugg ndax euh, nesu Chaabaan la am na ñu jàpp ne tey nesu Chaabaan la waaye suñ xoolee ni ñu ko joxee fii mooy suba mooy nesu Chaabaan weer nag mooy le treizième le quatorzième ak le eh, quinzième jour eh, eh, bon yaa ngi ci koor gi dama dama la bëggoon dooli essence pour oto bi gën a tàkk <laughs> waaye comme comme comme yaa ngi woor am na essence essence déjà mm. euh, dañu bëggoon dañu jeexal ci ba ci ci balaa ngay dem parce que suba mooy waxtaan euh, ci livre yi mais am tamit programme boo xam ne ci ci ci Walfadjri la bokk mm. xam naa après Corombaan Ndiaye dina dikk euh, ci ci ci people Walf 2 Walf 3 ñu koy éliminer pour teg fi yeneen rajo lu tax waaw xam nga Walf 2 Walf 3 dañu amoon jamono gis nga loo gis day juddu day mag day màggat daf fi jóge loo gis itam dafay jot pour mu judduwaat ci ni la fi nekkoon ana lan moo juddu woon mooy am na jamono liñ amoon ci si karak kër sëriñ Seek yooyu yëpp nga xam ne moom mooy patrimoine boobu boobu waaraate amutoon assez d'espace ci jamono RTS moo fi amoon moom kenn mm-hmm. bu ko daan teg waxtu wu tuuti la ko daan teg daan nañ la wax ne daan nañ duy ay place ci ay cassette pour teg ko duñ ko mun daan daan nañ la enregistré ren ba déwén duñ ko teg ñëpp di ko jooytu ñi indi woon biñ defee Walfadjri itam def généraliste amuñu ñu ne nañ jël benn boo xam ne Walf 2 boo xam ne loolu rekk koy tax a jóg mm-hmm. maanaam euh, diggante loolu ñu xamoon ci boobu ñu teg ko ñu ne Walf 3 itam jeunes yi Walf dafa juddu rek 99 euh, ñu ne rajo de la jeunesse te jeunesse dafa bugg musique ñu ne nañ leen jox ñoom itam rajo boo xam ne carrément musique lay doon bi ñu demee nag ba nga xam ne rajo religion la tasaaroo na ba soo doon décompté fii mu toll ëpp na fukk mhm. yoo xam ne loolu rek lañuy def champ religieux rek la ñuy teg ak ay waraate ñu ne kon mission accomplie bu fekkee itam musique nga doon def léegi thématique musicale yi bëri nañ ba nga xam ne euh, tabaraka la jeunesse yi mën nañoo retrouver bu fekkee musique rek la ñu soxla dimension boobu yaatu na nga ne musique nag la nga ci amoon yow bàyyi nga ko généraliste bi mu koy def puisque généraliste bi terewul mi ngi def chant religieux généraliste bi mi ngi def musique généraliste mi ngi def information mu ngi def débat kon bàyyi généraliste bi moom mu continuer ci généraliste te ñaar yële nga defoon thématique religieuse c'est-à-dire champ religieux et autres thématique nangam nga joxaat leen beneen mission beneen mission bi mooy l'arabe est une langue africaine c'est pas une langue étrangère c'est une langue africaine majorité arabe yi ay africain lañ soo leen mm-hmm. jëlee la dalee Mauritanie ba ba nga yéggee Égypte ak réew yooyu ñooy major ñoo ëpp ci arab yi arabe yi donc c'est une langue africaine c'est une langue boo xam ne itam sénégalaise nga xam ne li fi am tey ci ay intellectuels arabes bëri na et des arabes parmi nous des marocains des mauritaniens et autres des libanais souriens syriens ainsi de suite kon arabe boobu mu jël langam ñi cay am information directe di ci am ay débat am tout le service bi ñuy def en français jot na donc rajo boobu ñëw remplacer bële nga xam ne euh, champ religieux loon pour que champ religieux dugg ci général bi bële jël mission bi nga xam ne itam muy tudd nan rajo rajo arabe bi. yëpp dafa tudd euh, nu mu tuddati Walfadjri puisque Walfadjri ensemble la dafa am nag ay section am na section boo xam ne langue nationale la moo tax langue yi bu ci nekk rek boobu section la soo demee tey fu mel ni BBC Londres moo koy faral di def moo amee loo xam ne awsa la loo xam ne arabe la loo xam ne nangam la waaye yëpp nag. mi ngi tudd BBC Londres maanaam xëy al idaa al britannique qism al arabia qism nangam fii itam noonu lañ ko defee ci un ensemble mais dans cet ensemble il y a nag le tout donc su ko defee nag langue nationale yi itam loolu la bu toujours ñu ngi ñu doon sikk naan ñu waaw kañ ngeen di def alpulaar kañ ngeen di def séeréer kañ ngeen di def joolaa kañ ngeen di def soninke kañ ngeen di def toujours ñu ngi ñu ko daan wax muy muy métti tey nag commencé nañ ci booleen deeru leen nga xam ne euh, Ousmane Sène lañ dénk loolu nga xam ne dana def léegi léegi itam ñu dénk ko Assane Diouf dana fexe ba ñoom ñëpp ñu jox seen kii mais nag loolu itam c'est un première pas boo xam ne mun na yegg ci ku nekk ñu jox la sa rajo bopp voir même sa tere bopp ndax technologie tey maye na ko nga xam ne mun nga mun nañoo dem ba yooyu yëpp ñu créer leen ay télé technologie may nañu ñu mun leen a defal même ay quotidien yuy war a mun a génn loolu yëpp nag lenn rek lay lay indi mooy le droit à l'information mooy le développement du pays pour réew mi mun a jëm kanam ndax nañ ko def boo gis nañ ko wax moo ko jiitu gannaaw ñun nag dañoo farew ci mooy dañ cee dugg mais ña nga commencé woon ci bimensuel yegg si nañ ba ci nombre bi mais toujours dañuy bugg di ko gën di yaatal kon ci résumé mais nag luñ mun a bind ay téere la mun cee wax lu bëri lu yaatu la. bon Walf euh, mi ngi jëm ci ci projet. am na euh, am na sax suba benn surprise mooy man bind naa téere bu bees danaa ko fa présenté waaye bugguma ko woon a nag annoncé puisque mun maa annoncé samay téere papa ba pare di annoncé sama téere mais sama téere bu bees boo xam ne maa ngi koy def mburu mu tàng la moom itam dana ñëwaale te itam expérience bu riche bu yaatu la mburu muy lakke wala mbooloo mburu mu tàng bu bu bu dañ ko bàyyi ba mu tàng ba bu ñëwee nag comme lakk ñu xam moom la téye lu <laughs> bon la bon la ci kanam baraw liggéey euh, président Sidy Lamine Niass ñu lay euh, gërëm xam naa nga des ak ñun nag ñu euh, ñu dem ci santé de la beauté santé de la beauté nag ak ak unaar lañ ci àndal santé de la beauté bon Modou ci la ñuy dëkk ci seen émission petit déj. xanaa njabootam gi mel ni or ñu leen di ni weeru koor ku ñu ñaanal nga jug ci bekkoor ku weddi laajal waa doktooru talu bépp xalifa du dem ci fon kolor xalifa nooy baraw suuf si joor tabeem gaaraw nawet waxuma laak noor koog sëriif yi baraw seen garde koor yaa daan kon def nga jaloor mooy awaka tariqa bi xalifa raw ñëpp te musta ay raboot mbooleem kuy les xalimba mooy sa xalimba ak gattax du yam ak bul ko xool ci sañse loolu du seen foor wërsëg wayaatu woon te musta dox di poor ba siiroo doon way di sa akku seen bënoo ak ak nga xam ne moo di Una. Mhm. u ñu lay nuyu. maa lay fay Adja. yaa ngi ci mm-hmm. di nuyu ñëpp di nuyu tamit suñu kilifa bi nga xamante ne tey moom la ñu dalal. comme chaque vendredi ni ñu leen koy defee santé de la beauté. Euh, xam naa tey mooy nekk ñetti àjjuma bu ñuy bu ñuy wax. ci bët ñu bët rek. waaw ñu nekk ci bët rek nañ bët rek. te ko waaj waaw ci bët yi. <laughs> mais doyul. Adja doyul parce que am na benn ponk boo xamante ne am na sax yeneen yoo xamante ni dinañ ci gën a ñëw mais tey bi nga xamante ni tey moom lañ si taamuwaat tey mooy li nga xamante ni mooy lentille lentille xale yi jigéen yi di koy takk mu nekk nag loo xamante ni nag wax dëgg yàlla rafet na parce que mën nañ ni c'est fun c'est c'est genre maanaam dafa dafa nekk loo xamante ni dafa xew nit ñi bëgg nañ ko xale jigéen ñi bëgg nañ ko mais avant loolu dañuy seetaan suñu élément parce que oh, dañ leen am na ñoo xamante ni dañuy jënd lentille te mënuñu pose lentille na extrait bëggoon nañ aussi avis médecin bi parce que amoon nañ ko mais dafa am tuuti erreur rek boo xamante ni parce que aussi bu ñuy liggéey liggéey bi il faut tout le temps loo xamante ni côté santé la il faut ñu ciy boole docteurs yi mais mais ñu ngi ci jéggalu bu baax euh, di di di ci di ci remercier aussi euh, docteur ophtalmologue boobu di Aminata Lo donc dañ leen di woon rek euh, avant ngay utiliser lentille ni nga xamante ni noonu nga war a jëlee soin ci sa ay loxo ci kii bu pare soog ñu soog a ci suñu élément Commencez toujours par laver et sécher vos mains, cela évite tout dépôt de saleté ou de germes sur vos lentilles. Commencez toujours par votre œil droit afin de ne pas vous tromper. À chaque œil, sa lentille et sa correction. Saisissez la lentille hors le mode d'emploi de votre solution d'entretien. Séchez parfaitement vos mains et placez la lentille à l'extrémité de l'index. Vérifiez que la lentille est dans le bon sens. Si elle a une forme de bol, elle est à Si elle a Abaissez votre paupière inférieure avec la main qui tient la lentille. Utilisez l'autre main pour soulever la paupière supérieure. Placez délicatement la lentille au centre de votre œil ou sur le blanc de l'œil. Une fois la lentille posée, relâchez doucement la paupière supérieure puis fermez les yeux quelques secondes. Clignez plusieurs fois pour bien positionner la lentille. Une autre astuce, maquillez-vous après avoir posé vos lentilles afin d'éviter Bravo Vous avez eu une journée active Il est maintenant temps de retirer vos lentilles. C'est encore plus facile que de les poser. Quelle est la première chose à faire Laver et sécher vos mains. Si vous portez des lentilles à renouvellement fréquent, remplissez l'étui de solution d'entretien et renouvelez-la chaque jour. Commencez toujours le retrait de vos lentilles par l'œil droit. Regardez vers le haut et maintenez votre paupière inférieure vers Faites-la glisser vers le bas, sur le blanc de l'œil. Pincez délicatement la lentille entre le pouce et l'index. Si vous portez des lentilles journalières, il suffit de les jeter après chaque utilisation. Si vous portez des lentilles à renouvellement fréquent, nettoyez-les en respectant les instructions du fabricant et celles de votre prescripteur. Remplacez votre étui fréquemment, comme indiqué par votre professionnel. De même, respectez la fréquence de Des protéines et d'autres composants de vos larmes adhèrent à la lentille. Si vous portez les lentilles plus longtemps, vous n'y échapperez pas. Vos yeux sembleront rouges et fatigués, ils pourront être irrités et votre vision sera altérée. Une lentille renouvelée plus souvent est une lentille plus performante. Si vous avez besoin... Bon, donc, euh, euh ci lentille euh, ko dafa am dafa dafa am yoon. dafa am méthode. Mhm. dafa am yoon c'est-à-dire fii dafay jàngale. Euh, mi ngi koy wax ci nasaraan mais ñun li ñu koy jàngalee ci kàllaamay ci mooy bala ngaa utiliser lentille bu fekkee la leer na li say lentille moom am loo ci am soin c'est pas la peine nga di ko utiliser parce que encore une fois bët dafa fragile. Mhm. ba pare ba euh, li ci gën a grave mooy mën na la mën nga utilisation bi ci biir utilisation bi avant ngay utiliser lentille déjà dafa am euh, solu solution boo xamante ne tout le temps moom nga war a raxasee say loxo ba pare. désinfecté say loxo tout ça processus processus bu gudd la. mais comme tënk rek dafa am noo xamante ni. ba pare tout le temps bu fekkee yow leer na li lii loo ko utiliser encore une fois bul ko di c'est pas la peine nga koy utiliser parce que mun na la amee infection ba pare mën nga agresser sa cornée bi cornée bi mooy mooy lii. weex lii non dafay am euh, ci bët. Mhm. mooy tige tige bi euh, partie antérieure la tudd. ci si biir bët bi la nekk mooy kii bu weex bi nga xamante ni. moom mooy tax sa gis-gis leer moom mooy leeral sa bët. waaw loolu moom jar na sàmm waaw parce que bu fekkee euh, bu ba ba pare il est déconseillé comme nga xëy takk lentille pendant 12 heures de temps. lentille dafa am ah bon lentille kenn du ko yendoo. déedéet ah mën nga ko yendoo parce que mën nga ko takk 12 heures de temps. 12 heures de temps mën nga ko yendoo mais li li ñu gën a déconseillé ci lentille mooy c'est-à-dire nga nga takk lentille avant ngay maquillage Euh, euh, avant ngay maquillage yu euh, dama jum ba avant ngay maquillage ci ngay def say lentille ba pare cest mm. boobu def nga sa def nga sa préparation raxas nga say loxo raxas nga sa lentille parce que lentille aussi dafa am lu ñu koy raxasee ajaar dafa laaj hygiène dafa laaj hygiène mm-hmm. te hygiène bi mën nañ ko jox benn solution bu bu facile la ah, da ngay jël sa ndox bu fekkee bu fekkee yow amoo boo xamante ni bu tubaab bi la moo gën a cher wala moo gën a difficile moo gën a compliqué am na solution boo xamante ni moo gën a yomb da ngay jël sa ndox nga baxal ko def si sa tuuti xorom baxal ko mu bax su baxee nga jël ko bàyyi ko mu sedd def ko ci benn butéel dugal ko sa frigo di ko utiliser loolu moom ngay raxasee sa lentille ah moom koy raxasee moom ngay raxasee sa lentille lentille kenn du ko raxasee roxu ndoxu robine parce que xale jigéen yi dangay jël lentille dem si ndoxu robine bi di ko fa raxasee déjà boo ko raxasee ndoxu ndoxu robine mun na damm day damm te moom supporté ndoxu robine mhm. supporté ndoxu géej supporté ndoxu piscine dafa am ndox spécial cest à ndox bi ndoxu bi solution bi ma leen proposé proposé nii mooy solution satinée c'est-à-dire da ngay baxal ndox ak xorom. ndoxam xorom ma bantuwaat ko. loolu la ñuy raxasee lentille lentille saa yoo ko def soo koy retiré pour dugalaat ko ci bokaalam yi danga koy raxas ak solution bi ma la proposé muy ndox ak xorom boo xamante ne bàyyi nga ko mu mu bax pendant fukki waxtu ak juróom moom ngay raxasee say loxo. moom ngay raxasee say say lentille soog ko placé. fukki minute ak juróom fukki minute ak juróom damaa juum. fukki minute waaw da waaw <laughs> xam naa ñàkk dégg olof <laughs> fukki minute ak juróom. Eh, eh. soo ko soo ko defee noonu nag bu ci nekk ba pare lentille dafa nekk loo xamante ne dañ koy utiliser mais dafa xaw a waaw man da da nga bëggoon leeral ma hmm. yi mooy lan. yi benn affaire la boo xamante ne dañ koy dugal suñu bët c'est-à-dire pour pour taar. lu mu jëriñ. pour taar Ah, waaw bu regard bu akaya pour pour pour parce que am na lente yoo xamante ne lente yu bleu la am na yu marron am na yu gris am na yu mauve am na yu blanc yëpp am na am na sax yu jaune waaw comme comme eh, comme des fois tubaab bi ni ñu amee per bu bleu waaw per bu yeneen couleur yi comme ñun suñu per yëpp euh, dafa noir waaw waaw donc loo foofu daal mooy taar bi pour changer tuuti rek parce que des fois di takk lanti xool nit mu xaw mel ni ko a ku ko xaw a jommal kon dafa am lanti ak lanti puisque man lanti li ma ci xam mhm. mooy bii lanti esthétique la. waaw lanti esthétique mooy lanti bi nga xamante taar moo ko tax a jug. <laughs> waaye bu am buy remplacer. waaw buy remplacer tamit am moom dañ la koy prescriral nga dem ci médecin mu prescriral la ko nga suivre indication yi mais bii nga xamante ne ñu dañuy sensibiliser sensibiliser tous les vendredis mooy maanaam ñiy jëm ci wàllum taar te dañ koy utiliser te xamuñu nan lañ koy utiliser mu nekk loo xamante ni tout le temps ñun jigéen ñi dañ ciy am jafe-jafe mm-hmm. te xëy na peut dañu xamul Euh, euh, mais toujours bo préciser. waaw ne am na lanti taar. am na waaw am lanti taar ak lanti kii bi eh, mais mais mais bi ñu xam ne moom la ñu wax. Mhm. mooy yu couleur yi. waaw yu couleur yi parce que des fois da nga gis nit ku mhm. ñuul. Mhm. am bët yu bët yu vert wala bët yu bleu. wala bët yu marron. des fois sax ñenn ñi boo xool sax mën na la xaw a tuuti mais taar la. aussi xam nga rek surtout guddi les goûts guddi. ah guddi lañ koy def. non mën nga ko def n'importe la comme li nga wax ci tiitalaate boobu. waaw mën nga def des fois lanti <laughs> bu mauve wala lanti bu jaune xool nit mu xaw la ragal noonu. waaw say bët wala lanti bu gris parce que te kooku tàmm la gis noonu parce que daf la tàmm gis sa bët di di di euh, noir et xëy nga mu gis la nuyu la nga gis gis ni moom mu sentir ni yow sa bët changé na loolu yëpp xeetu taar la rek. amul mm-hmm. benn problème. amul benn problème xeetu taar la nekk na nekk na loo xamante ne daf phénomène la boo xamante ne dafa xew encore une fois dañuy sensibiliser nii ñi rafet na mais dafa am loo xamante ni loolu lañ charte déjà yow waruloo dépassé maanaam euh, durée bi mhm. dure bi nga xamante ni tey jii lente bi moom la war a am waruloo ko dépasser c'est-à-dire da nga ko war a renouveler euh, tous les trois mois da nga war a jël boobu nga sànni ko hmm. waaw lentille kenn du war ko garder pendant un an wala deux ans am naa lentille rek di ko garder pendant un an wala deux ans di ko takk même paire bi c'est pas bon. baaxul ci bët baaxul ci bët. lentille loo ci xam. <laughs> santé de la beauté <laughs> lu mu wax lu am solo parce que am na ñoo xamante ni bu ñuy utiliser lentille dañ koy utiliser du matin au soir. Mm-hmm. surtout ñi nga soxna Sénégal yi nga xamante ni dañuy bëgg saa su di yokk seen taar. léeg bu ñuy am xew wala ñu leen. wala ñuy dem si wala ñu am ngénte mm-hmm. dañ gis ñoo xam ne euh, dañ koy takk donc baax na lu mu wax noonu euh, nit ñi di ci revenir bu baax mais par rapport euh, tout à ci lu mu wax ci wàllu hygiène bu mu laaj mm-hmm. est-ce que lentille yi nga xamante ni day wàccaale dafay dafa am yoo xamante ni euh, day wàccaale ak ndoxam yoo xamante ni euh, moom lay àndal pour nga xamante ne da nga koy ñëw rek utiliser ko. Mm-hmm. Euh, parce que ni nga ko waxee fii comme ñemewul ndoxu robinet ñemewul ndoxu géej. Mm-hmm. et tout ndoxu ndoxu piscine quoi ça veut dire que nit ki waroo waroo waroo def yi di dem géej wala ngay dem lentille dem piscine. warloo def yi di dem géej. Mm-hmm. warloo def yi dugg ci piscine warloo def lentille tëdd di nelaw. gën a dangereux boo war boo waree nelaw da nga war a retirer sa lentille parce que cornet bi mooy li ma leen di expliquer nii dafa soxla hygiène yow déjà moom mi ngi tëdd yow yaa ngi nelaw déjà yow yaa ngi fermer sa bët mais est loolu mënul réer ci biir mun na réer si biir ba pare na lemu ci biir mën na lemu parce que des fois aussi ci ni ngay retirer lentille yi am na am na man mus naa ci gis koo xamante ni daf ci am problème parce que lentille des fois mën na coincer sax ci bët mhm. nga ah, bëgg ko dindi mu të nga bëgg ko dindi mu të te loolu yëpp dafa laaj ay ay maanaam tuuti xam-xam parce que bët encore une fois dafa sensible mm-hmm. Mm-hmm. te suñu cornée bi nga xamante ni moom moo ñuy tax ñuy am vision bu leer dañ ko war a comme li ngay wax mamika warloo takk lanti di dem ci géej wala ngay mm-hmm. kii wala dafa am lanti buy buy wàcc rek am ànd nag ndox mi nga xamante ni moom mooy parce que lanti mënu dund ci ci wow wow tout le temps dafa war a nekk ci ndox paquetu lente bu nekk dafa am owam bu muy àndal kooku kooku pour lente bi du dund la hmm. mais li nga xamante ne moom mooy soin pour yow ak yow mi nga xamante ne yow yaay boroom lente yi déjà pour désinfecter sa ay loxo soxlawul dara lu compliqué hmm. encore une fois baxalal sa ndox jël sa tuuti xorom nga def ci euh, tegal sa ndox nga def ci sa xorom bàyyi ko mu bax pendant quinze minutes hmm. nga teggi ko bàyyi ko ba mu sedd loolu la ñuy nettoyer lente yi lente kenn du ko nettoyer ndox robinet kenn kiram yii ñëpp ñuy wax yëpp amul solo da ngay baxal sa ndox nga def si sa tuuti xorom moom ngay nettoyer sa loxo moom ngay nettoyer lentille. Mhm. Euh, c' soo tellement simple et c' est économique. si salon de coiffure da ngay gis ñoo xamante ne dañuy teg seeni i sa mhm. ça que ñoom tamit dañuy liggéey ak ñi nga xamante ne dañuy jaay lentille. donc léeg-léeg sa bët ver léeg-léeg sa nga bëgg ci taar nga yokk ko def bu vert def bu mauve. Mhm. est ce que ci côté njëg bi xanaa dafa yomb wala dafa am itam li nga xamante ni moom moo di faux. mooy yu yu yi ak yu faux yi. seen lente bi nga xamante ni moom taar moo ko tax a jóg. Mhm. cher na cherul parce que aussi taar daf lay jaral rek. cher na <laughs> mhm. cherul ba pare man gisaguma lente bu faux. ko franchement yi may gis yii pour côté euh, comme ni ko professeur waxee léegi côté médical nii côté taar. Mhm. yow lay neex rek nga dem choisir bi nga xamante ni euh, moom nga bëgg. comme tey côté taar bi la ñu bëgg côté taar bi aussi man gisaguma ci faux. franchement gisaguma ci mais mais mais euh, ak lu ak lu mënti nekk. Mhm. dafa am dafa am yoon boo xam ne. dafa am yoon dafa am yoon président directeur général Walfadjri noo gisee lentille lentille parce que euh, taar jigéen. Mhm. day bëgg di taar fu mu toll. lentille esthétique am na yaakaar da nga yaakaar ne lentille médicale rek moo am. Mhm. lentille boo xam ne waaw cest à li ma ci tënk daal ci waxam mooy moytu toujours safara bu jur jàngoro. ñàkkee ci say bët wala nga ñàkkee ci yu bëree bëri mhm. lu jara moytu la mhm. ndaw si da euh, jëkk waaye dafa amee jëkkër ji dafa amee seen doom di ko fooye gis ne amul bëñ mu rafet ak moom mu ne chie waaye ñàkk bëñ bii moo rafet rek jabar ji daal di dem ne nañ ko wekkil bëñam dem ñëwee rek mhm. daal di ko reyal ne ko xoolal fii mu ne ko yow moom tey nga ñibbi bii taxul may wax waaye itam dégg dégg ne bët yi rafet na ba nga ne ba nga tey ma ñàkk bët bu eh. boobaa yaakaar naa ne la nga doon ci taar da ko ci ñàkkaale Euh, roy dàq euh, daf ci jara daw nangam xew na ma xewoo ko am na mhm. ñuy bënn am na ñuy def nangam soo demee duul tey rek la xew puisque yu njëkk ya daan nañ jam nga dem di ci yendu suba ba ngoon ñuy jël ay puso te ànduloon ak wér gi yaram ànduloon ak yu bëri nga ne taar laa ci def mooy jamutuñ comme ni nga ko waxee mhm. ak yeneen ak yeneen yoo xam ne daan na ñëw xew su demee ba paase nga am ci problème moo tax lépp loo ci dugg mhm. fexe ba bu la xewit xañ sa wér bu la xañ yu bëree bëri mm-hmm. d'abord moo ci jiitu mm-hmm. ñaareel bi itam li nga wax taar taar itam euh, wan ko ko ko saf c'est important ah, euh, wan ko ko ko saf waaw waaw ko ko saf maanaam bi man nga ko def mais c'est pas que c'est pas <laughs> bët yu xonq bët yu verte bët yu bët c'est-à-dire euh, li di jàmbat mooy fi nga war a wone taar doo ko fa sa jëkkër wàcc na yow jabar nga ngeen war a toog nekk seen intimité mu war a kii nga war a nga xam ne soo solee dana la ko apprécier bu solee danga nga ko apprécier nga ne ah fi daal sama kër la mun naa fee teg samay sagar soo jógee di dem ci mbedd bi nga xam ne képp ku la apprécier rek sa am na lu mu ci jubloog lu mu ci nam mag baat yi mu ci sànniwaaleeg lu muy des ak si de suite nga ne xaaral ma ma yóbbuwaale ko fa c'est-à-dire suñ suñ toogee poser quand même fonds yooyu quelquefois c'est important <laughs> donc euh, suñu waxee daal taar il y a taar fa ñuy taaroo yaa yaa jàngoro itam bu bañ a jur euh, euh, saafara bu bañ a jur jàngoro waaw taar taar bon am na ci solo naa taar yi ñu ñuy ñu ñu koy gën di def ci biir kër yi bañ ko bañ ko daal lañ ma dem buñ ma su fa lay safee de en tout fa lay safee <laughs> <laughs> madame Faye am na solo taar moom jigéen day bëgg def lu taar rek pour rafet wala pour boroom këram rek comme ko ko mm-hmm. président waxee waaye tamit def ko de manière euh, saine bañ ko def ba pare mu lay yàqal nga dem ci spécialiste mu defal la dara moo gën nga dem ni ñu lay defal ñu la koy def te du baax mm-hmm. mën na indi mm-hmm. jàngoro mën na indi jàngoro waaw Adja comme comme euh, lenti lañ leen indiloon encore une fois ñuy bamtuwaat lenti nekk loo xamante ne dañ ko ŋàññ parce que aussi bokk na ci li yokk taaru jigéen. Mhm. ku ko bëgg mun nga ko utiliser mais dafa am ay normes yoo xamante ni moom nga koy. utiliser soo xamul mhm. aussi nga laaj nan yan normes lañ ko parce que dafa sensible fi muy fi ñu koy def la muy bët. encore mhm. une fois ñëwoon nañ leen ci xef ñëwoon nañ leen ci euh, ci ci ci. collier tey ñu ñëwal leen ci ci ci ci. ci lentille lentille nekk loo xamante ni aussi day yokk taar mais bum la jural jàngoro. te aussi ñuy may bamtuwaat ni bala ngaa def say lentille wala bu fekkee danga nga nar génn bu a pose say say lentille ngay say lentille ba pare soog a def li nga xamante ni mooy sa maquillage te avant ngay def say lentille da ngay désinfecter sa loxo désinfecter bi wax naa ko ma bamtuwaat ko c'est pas compliqué ndox ak xorom bu ñu baxal la nga raxas ko raxas sa lentille daal di koy teg loolu c'est pour protéger say bët protéger cornée bi nga xamante ni moo nekk ci partie intérieure bi nga xamante ni mhm. moom mooy tax nit ñi mën a gis yow yow nga mën a gis gis gis-gis bu leer te yaakaar naa il faut nga am gis-gis bu leer pour mën a mën a mën a jaay taar te bët sax kenn du ko jaay sa marché ba mhm. maa ngi lay <laughs> ngi lay fay ñu lay gërëm xam naa par xam nga par àjjuma nag da nekk euh, sama docteur par àjjuma ñaari euh, docteur laa fi am waaw docteur waaw interview secteur tarif comme euh, tey la vendredi ñu ngi centre de la beauté ñu centre de la beauté ba pare aussi ñu wax la ni sànq yaa ngi may laaj ñi ñaata heure lañ ko lañ ko war a lañ ko war a takk ndax mun na yendu mun na yoon mun na yendu mais bu mu dépassé douze heures de de temps maanaam ci sa bët comme tey le vendredi nag maa ngi nuyu ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñuy woo di ñu SMS di maa ngi gërëm ñëpp daal tey bëgg ma def nuyu mbër gërëm ñi nga xam ne ñoo safoo waaw petit déj ak Walfadjri yëpp di leen gërëm Fatou di leen di leen gërëm di leen sant di leen di gërëm yéen ñëpp ñu toogañ ci plateau bi di gërëm président directeur général monsieur Sidy Lamine Niass mm-hmm. disponible aussi ñëw waxtaan ci livre bi ci mm-hmm. royukaay di wax si waajuram bu góor ñu ngi koy jaajëfal di juma bi di jaajëfal aussi mbokk téléspectateurs yi mm-hmm. ñu lay gërëm euh, Mamika. waa di la gërëm bu baax borom borom tagal geeg ëppukaay gi ëppukaay <laughs> Mamika. Uh-huh. waa gis nga sama ëppukaay bi. waaw xam nga man dama gëm africanité dama bëgg dama bëgg africanité moo tax saa su ne damay bëgg euh, damay damay bëgg di ko dund looloo tax euh, warin faal defal ma lii tey ne ma comme da ngay dund africanité tey dama lay yóbbu ba ca Nigéria Euh, seen tagal yi ñuy def bu ko defee nga nekkal ma ambassadrice bi foofu. waaw waaw <laughs> waaw tey tey moom laay gërëm. tagal bi njool na jekk na ñu lay gërëm. waaw di jox dig daje incha allah téléspectateurs yi lundi. beneen feebar nuñ koy defandi saa su ne di toppandi feebar bi euh, ngir téléspectateurs yi euh, gën cee euh, sensibiliser donc comme semaine bi nuñ ko defee ñëw nañ ci feebaru ween bi yaakaar nañ que ni téléspectateurs yi jëlee nañ ci njëriñ maanaam ku ci gis mbaax boo paree rek defal sa autopalpation ñaari at yu ne soxna demal defi li nga xamante ni moom moo di mammographie mhm, semaine prochaine ak beneen feebar yi beneen feebar yi incha allah ak la nga xam ne moo di lañ koy fajee. Euh, président ñu tàggoo. waa kay maa ngi leen di gërëm euh, di gërëm ñëpp seen ni ngeen abordé yi fii échange yi li ma ci waxutoon rek ma dolli ko ci mami ka Khalifa Niass maamam la. puisque bu mm. Boucar bi nga xam ne moo jur Cheikh Omar di jur papaam Amady Boucar. dèjà moom ak El Hadj Abdoulaye ñoo bokkoon benn néeg ca daara ja ba ñuy bokk di jàng. Mm. Euh, ñangeen gi mbokk ñoom la ñuy wax Afe Serigne Afe ñu nga tiwaawoon dañu bokk Touba dañu bokk Niassène donc c'est une famille boo xam ne moom itam daara la. ñi fi déglu yëpp itam bu ñu leen dégloo danga gis ne daara ji ce qui veut dire que. bon moom mën nañ ko jox addiya moom. ah moom dama doon dama ko doon joxe en passant waaye valable na ci ku nekk Sénégal dafa. ba jël tour yi rek jël sant yi remonté da nga gis ne le Sénégal est petit que ñëpp ay bokk lañ mhm. dañu waxee itam ci fond bi dégg nga madame fay ni muy dégloo ci juge beeg ni mu ko liiree mhm. intérêt yi ça veut dire que donc dans le pays il y un tout nit ki soxla diineem soxla jukko yu rafet soxla yu bëri soxla itam côté taar soxla itam côté wér-gi-yaram soxla yu bëree bëri loolu yëpp nag ngeen ñëw yéen di ko sotti ci fuggee di ko booleeg waxtaan c'est important je vous félicite maa leen yaa encouragé noo am am na solo am na solo tey ka li ma ñëw te ndekkiwu ma waaye xam naa ne dee leen ci boole xëdd mi su ko defee nit di teel a ñëw xëdd ñu koy gërëm euh, bon mu doonoon euh, suñu euh, suñu gan ci première partie bi suñu équipe bi nag première équipe la dañu leen di gërëm deuxième équipe baa ngi ñëw léegi léegi ci télé ak ak matinal bi ngeen tàmmu petit déj ci Walfadjri bakk leen ki firaw ubna lambi soodaan wala bakk leen ki firaw ubna lambi soodaan wala demoo di maam xalifa jël na ndam la diwaan wala moo di maam xalifa mi ci law na ñaaseen wala abdoulaye mooy baayam te moo fi doonoon wala bay yonantu mi tax diine màgg aw yoon amina cam mooy yaayam te moo fi doonoon wala yaay yonent bi démb ci lii la jaaroon wala muhammadu mooy tur wa gisoo ku am lii muhammadu mooy tur wa gisoo ku am lii wala si démb ji ba la fan la juddoo moom xalil rahman seelig mag ca boori Ndofaan wala turam wa mooy firi soobu ci gaay xerfaan wala ku soppu maam Xalifa dootu war di mar naan yonantu bi tapal ko karaati diineem wala ma wax la kan moo jàngal xalifa quraan wala la maam alsaan siise kumba darmaan wala bidiw bëccëg la ko doon wan si jàngu dar soom wala ba mus alsaan mel ni moo di wala xam-xam bu ba mu am loolu man ko jàngeew ati baayam ba nga xam xalifa masuta mangeew xalifa ñesu lu mu yor day tasaare bam jeex jikoy yoon ko gis dafay feex te xalifa moo kawe woon daan taxoo te dëgg suuf déglu ko fii takaleel xalifa moo la gën foofu te xalifa ñes ku la jox paas nga dem siyaare ji Makka jaaraale dem faas soo weddee na nga laaj kay ña daan taxoog ñoom ñoom lum leen masa ñaanal dañoo dajeeg moom laaj ko Adama seen waaja ñepp doon seen ay xalifa

abdi ko ji sirru ya batuutaam ay xalifa ñaasa ko ñaanal mu doon jamanteer wala ba fépp sax fu mu rombir ñu koy commentaire wala ay mi lu mu yor day tasaare bam jeex wala ci koy yonen bi yor foo ko gis dafay feex wala Seex Tijaan la fal yaa fi doon wasilaam baa nga lañ ñi ma jàngal la jal ayan caam mbangala Cheikh moo dog Xaaji Omar Caam mbangala ñay dingat la jar maya baaw Xalifa Ñas ko door xat mu lay ayu baaw soko maa yaaba dafa jum nit ñi yoonu Tijaan wala te wax ju jamu wax wax ja doy na kéemaan wala te Seex Tijaan ku ko lallal rasuulu adnaan wala xalifa ñeesa ko dóor xatmu dal di jaaxaan wala ab kunam dafa rëy moom xajul ti ndandaan wala képp kum fi masa leew tul nga bàyyi jaaxaan wala bindoon nañ fi ab leetar si la ko mandaa bu yor koppi ci làkku nasaraan wala sëriñ si yëpp ku daje andi seeni mbooloo wala kun ta joxañ leetar ba nga yar ko delloo wala ki ko tekki ñu bang ko fal buur jurub galas mu ne leen buur bi moo yeyoo nguur maam alxaaji ne samba dawal nga wax leen ne yal na fal na ko dembu si diina jël leen yal na fal na ko ko ak yonantu ak cheikh looloo waral ngeen mu doonoon Omar Ñas muy woy nag maam Xalifa Ñas suñu royukaay bi nga xam ne tey jii Fatou Diouf moom la ñu doon dëgtal ca njëlbeen nag doon njëkk woy moo di Bachir Ñas ñëpp nag wax ci nit ci yàlla ku euh, gu mag kooku ci déj nag di euh, wéy ñu nekk fi ak beneen équipe boo xam ne nag équipe bu bees tàq buñ daaj ci paquet la bii équipe bu bees la wax yi waaye bu fa nekkoon nag dañoo euh, genre onar ak ñoom seen ñu nag ñu am ñu am équipe bu bees di ci njëkkee sama càmmañ da ngay ne équipe de choc équipe de choc waaw xoolal rek équipe de choc voilà Ah. ah kon Una bokkul ci équipe bi. Euh, non tey daf ma abandonné. <laughs> tey daf ma abandonné. tey ma war la abandonné. waaw daf ma abandonné li nga def tey loolu loolu rafetul. voilà Red Chef ñu lay nuyu. na nga def. na ngeen ci jàmm. waaw waaw waaw. yow dama war di nuyu di nuyu di nuyu chaque jour. ndeysaan. sama nuyu dafa c'est la Rufisquité. ah waaw <laughs> c'est la Rufisquité. waaw xam nga ñuy nuyu waa Tëngéej ceeb. ñuy nuyu waa Tëngéej xam nga booy def loolu papis xol bi day bon. xol bi day bon. moo ko moytuwul ma papis moom day day dooree euh, mbaar mbaar mi saan ajaratu na nga def maa ngi fi gis nga man ajaratu xam nga lu tax bokk ak yow plateau bi di ma neex ah. moom i yenn saa mu sànni may xeer mais moom tamit dina ma may mbaar mi sànni mais yow mën man Mbisaan loo may may xam nga Mbisaan dafa am lu muy def ci man. dëgg la nee ma borom fukki fukki penc yeeg ñaar rek. yow nee naa la yaay borom fukki penc yeeg ñaar. ndakaaru koo lu du dëkk. maa ngi sëñ bi ma borom ndakaaru ngi toog <laughs> Amina. ajaratu sant alhamdulilah bi rafet na. jërëjëf. muraay bi rafet na yére bi rafet na bii ko daax. yére bi rafet na. <laughs> waaye nag euh, boo boo xam naa après xam naa Amina moom. <laughs> ngaan sa gan tey di Fatou Ba. di Fatou Ba Fatou ñu nuyu nañ la. ajaratu fay naa leen ñëpp. ñu lay nuyu bu baax. jërëjëf gan gi. waaw gan gi di euh, madame Fatou Ba di couturière. Mhm. macha allah ñëw ak ñu ñëw ak tey ci fu rafet xam naa ci kanam lañ ci dikk. ci mode islamique ci mode islamique ci mode islamique. Mhm. ñuy euh, balaa ñuy dem nag ci mode islamique dañu ñëw ci wàllu euh, tàggat yaram ak monsieur tàggat yaram euh, monsieur en forme et en force Cheikh Tidiane Gomis moom toujours en forme <laughs> toujours en force jaajëf jaajëf jaajëf waaw dëgg la bouger rek waaw bougement wala bouge bougeation <laughs> bougation. bougation bon ñu dem ci ci wàllu tàggat yaram. waa xam nga. sport coupe du monde moo xew. moo xew de xam nga di xew moom. da nga koy teg ci taa xew na torop boo fi waxal leneen te waxoo coupe du monde gars yi dañ la mere de. waaw dëgg moo xew. te ñun kenn duñu mere ndax ndax ci ci ci yitte askan bi la ñuy dox. ci temps rek lañ koy teg. ci temps. Euh, coupe du monde bi ubbi na démb. waaw. ba cérémonie d'ouverture lañ ko euh, commencé bu gàtt la nag pour la première fois ci histoire coupe du monde. kii bi ça a duré vingt cinq minutes en vingt cinq minutes la culture brésilienne a été euh, voilà magnifiée montrée gars yi xam xam nga Brésil dafa bari ay dëkk ay ay ville démb nag booy xoolaat euh, cérémonie d'ouverture bi euh, ville bu nekk gis na ci boppam indiens yi xam nga Brésil dafa am ay indiens mhm. indiens yi génn ñëw nañ dégg yëpp ñoom ñëpp ñu wane leen ak seen ñu wane culture bi surtout ñoom li gën a kii moom mooy fecc bi fecc waaw samba bi euh, ñoom culture ñoom ñoom euh, culture euh, kii boo gis ville boo gis dafa am nu muy fecc dafa am façon feccam dégg loolu lañ doon wane dé spectacle Brésil. ndax boo gisee boo gisee carnaval de Rio ni koy. ni koy très bien wax nga. nga xam ne nga xam ne bu ñu ayee rek mu neex. c'est célèbre carnaval de Rio mooy la samba. bu mhm. la samba dégg nga parce que nee nañu eh, on est au pays euh, au pays de la samba parce que c'est la danse dégg nga c'est c'est c'est la joie dégg nga Jennifer Lopez moom démb moo wëy xam nga yaa ngeen di fàttali 98 France Youssou Ndour la woon. dégg bii nag moom Jennifer Lopez lañ ko jox parce que Jennifer Lopez dafa xaw a laal ak. Euh, euh, ak euh, waaw latino yi. voilà parce que loolu tam ñu ko doon wax. ñu ngi doon wax mais après finalement. ñëw dégg nga démb def benn spectacle dégg nga wane moom ci côté boobu la bokk. Mhm. et extraordinaire. bi loolu yëpp amee nag parce que y avait au moins sept chefs d'État ànd ci ak présidentu euh, Brésil dégg nga euh, ñu euh, kii ko ci jàmm ak salaam ba nga xam ne lépp jaar léegi nag bi loolu jeexee xam nga gars yi loolu moom gars yi gaaw dañu dañu yàkkamte mu gaaw a jeex. loolu ça c'est ça c'est les voilà loolu moom gars yi gars yi gaaw nan kii bi loolu jeexee nag. compétition en tant que telle bi commencé. Mhm. c'était le match d'ouverture mhm. euh, bu njëkk ba ki gagné woon coupe bi moom moo doon. jouer euh, moo doon ubbi. Mhm. mais léegi depuis 2006. en Allemagne. Euh, FIFA dafa changé léegi mu ne c'est le pays organisateur. moom mooy jouer premier match. parce que en Afrique partout dans toutes les compétitions. Mhm. FIFA rek moo doon def euh, kii euh, mhm. euh, le contraire mais bii nag FIFA ñëw. Mhm. CAF Coupe d'Afrique. maanaam pays organisateur bi moom moo doon kii. léegi nag loolu la démb nag le Brésil et tout le monde. ñëpp dañu doon xaar Brésil. Ah mm. parce que ñëpp nee nañu dëkkam la mooy cinq fois champion du monde te kii da koy jël. dëkk football la da koy jël. mais démb. sincèrement ñii xool. Brésil. waaw ñii faral Brésil sax. Mhm. ñu ci bare. kontaan nañu xaw nañoo seen équipe. dëgg la tiit mhm. waaw parce que démb. parce que équipe bi taxawul. taxawul. Mhm. Brésil ba woon. waaw ñu gis démb. voilà. mel ni wute na. très bien parce que Brésil bii démb niñ ko euh, dañ ko malmené. dëgg la non dañ ko malmené. dañ ko jékku daal Croatie Croatie dañ leen dañ ko dañu malmené Brésil. ba tax na sax ñoom ñoo njëkk dugal. Brésil dans l'histoire du football euh, de la euh, la Coupe du monde pour la première fois le premier but de la Coupe du monde mu nekk contre kan c'était hier contre kan contre kan mhm. euh, kii bi Brésil bi mhm. moo dugal contre kan ça c'est la kooku mooy li bees li njëkk bees ci coupe du monde mhm. mosula am et que léegi coupe du monde bi beneen loo xam ne moo ci bees mooy que quatre buts yëpp benn eh, eh, benn équipe moo ko dugal quatre buts yëpp brésilien yee ko dugal. yaay quatre buts et les quatre buts Marcelo contre son cas. Mhm. Neymar qui marque deux buts. Mhm. Oscar qui marque le troisième but du Brésil. Mhm. donc eh, xam nga dafa am ay fait yoo xam ne inédit. lu bees la ci coupe du monde bi bon. Euh, ñu mais mais mais am na ñu ne arbitre bi dañuy. arbitre foofu la foofu doon ñëw parce que. li ñu gis démb loolu euh, toute la toute la presse la presse mmh. mondiale ànd nañ ci lenn mmh. nee nañu loolu du pénalty mmh. parce que Brésil dañ ko sonal démb soxna si kon daal liñ naan arbitre bi da da ko da leen arbitre bi nag gis nga fii ñu bare nag nee nañu nag boo moytu arbitre ñoo nar a yàq coupe du monde parce que li am démb déjà euh, pénalty bi du pénalty le troisième but le deuxième kii euh, euh, le le troisième but du Brésil. Mhm. coup franc la avant que Oscar di dem. d'accord te coach man beneen mbir moo di ni même bu dul coupe du monde compétition bu mënti am pays bi organisé wala pays bi recevoir beneen équipe bi c'est comme si dañ koy favoriser parce que c'est pas une première. tout le temps nga dégg équipe mi ngi football beneen équipe bi moo ko fekk ci wala mooy le pays organisateur moo xam CAN la mhm. moo xam coupe du monde la y tout le temps ces gens parisienne que arbitre bi da ci jàpp da ci jàpp favoritisme boobu. Mhm. Euh, ban jàngat nga ci mën a def. waaw dëgg la xam nga nag euh, dama lay wax benn affaire nag gis nga depuis bii xaalis duggee ci biir football. Mhm. dafa indi beneen loolu da ko indi parce que euh, affaire de xaalis la léegi ba tax na imaginel tey jii Brésil toog premier tour conséquence yi. Mhm. conséquences. nit ñi maanaam brésilien dañuy découragé. dañuy découragé benn dañuy découragé et eh, bu leen fàtte nekk dëkk bi. ci jafe-jafe dafa tàng fu mu nekk dafa am la majeure de la population brésilienne sont contre, contre. de la coupe du monde. ñu ngi topp di. parce que nee nañu xaalis dëgg la dañoo dugg mhm. dugal xaalis bu bëri. ci coupe du monde alors que y a un problème de santé. Mhm. un problème d'éducation et yeneen problème. Mhm. ñoom ñu def loolu dëkk yi imaginez Mhm. yooyu sax ci xaalis bi ñeen ñi nee nañ huit milliards ñenn ñi nee nañ treize milliards ñenn ñi sax quinze milliards d'euros. quinze milliards d'euros. Mhm. loolu moom macha allah loolu moom. loolu moom loolu dafa bari ñëpp d'accord nañ ne pour la première fois coupe du monde. ñu dugal ci xaalis bi toll. ba li ñu dugal ci xaalis ci ren jii ci coupe du monde mësul am. mësul am ñoo gën a cher le mhm. même Afrique du Sud bu mu koy organiser. dugalul xaalis bu mel noonu. moom nag Brésil ñoo na dugal ko ci. tabaxaat ay stade. hôtel dafa raat euh, tali yi dafa raat nangam yooyu yëpp mu dugal ko ci loolu alors que demande bi mu ngi doon xaar waa alors de voilà demande sociale bi mu doon xaar nit ñi dañoo sonn waaw ñi dañoo sonn mhm. ñii salaire bi matul ñii nga xam ne euh, hôpitaux yi waaw bien vrai que Brésil am na leen loo xam ne ci côté santé mhm. mooy que kenn du fay mhm. non parce que man dem naa Brésil man loolu moom ma njëkk a yéem bi ma demee Brésil mañ demee ba ñu yóbbu ma ci benn hôpital mais kenn du fay la santé pour tous. non non oh, oh, oh, man affaire daf ma jaax dama ñëw ni bu pour xooloo ma def benn reportage ci loolu kenn du fay. mais nag euh, li ñu laaj ñoom moom mooy ñu gën a améliorer. ci santé ci ci côté santé. ci hôpital waaw. Mhm. bon léegi nag euh, euh, pour foofu rek pour kii ba dafa am benn fee boo xam ne ñu ngi koy commenté ñu ngi koy commencé commenté fu mu nekk nii. Mhm. xam nga rek loo gis rek gars yi dañuy commenté. boo leen seetloo avant match bi di commencé. dafa am ñetti xale brésilien ñetti xale. yu ñëw di dugg ci biir terrain bi sànni ñetti pitax. pitax mel na. pitax. Mhm. bi ñu defee loolu nag gars yi nee nañu buti la mooy ñetti butu brésil yi. ah bon <laughs> tu as vu nee nañ ñetti butu brésil foofu tamit am nañu seen seen xeetu. ah waaw non c'est que bi ñu ko waxee parce que ñoom ñi ko wax ci. ñuy wax dañ ko teg parce que nee nañu. bu dee affaire xonjom Brésil moo dàq xonjom fi Brésil day xonjom waaw ñoom nee nañu Brésil bu dee xonjom rek dañ cee aay kon nag ñetti pitax yooyu bon c'est vrai mais c'est que booy xoolaat euh, lan la c'est vrai xam nga euh, pitax bu weex kolom xam nga pour la paix la c'est pour la paix waaye nag euh, <laughs> bon mais justement lan lay wut boobu tamit. lu muy waaw lu muy def ci stade. waaw waaw sama problème voilà lan lay wut boobu. yoonu ci football. waaw mais man pour man pour man am na am na fa place. waaw euh, ba ay xale hasard raar na ci yooyu. mais xam nga dañu naan xale xale muumin la xamul dara mm. ah. effectivement weex couleur de la paix. donc ñëw ubbee ko mu rafetal mu rafetal. xam euh, naan tombé waral ay gaar. <laughs> loolu la rek nag. <laughs> bu tombé ñett. ñetti ñetti pitax bu tombé ñetti bu. loolu rek la yàlla nag moo yor yëpp. voilà yàlla yore lépp donc euh, voilà c' était ça. Mhm. moom mooy li nga xam ne mooy fait yi nga xam ne. Mhm. moom moo am ci coupe du monde bi. léegi mhm. nag euh, tey nag Afrique moo xewle. benn doomu Afrique benn pays africain. moom mooy joué mooy Cameroun. Cameroun mooy joué ak Mexique dafa bokk poule ak Brésil nag. d'accord mhm. kon nag. Euh, euh, foofu poule bu eh, poule bu tàng la. eh poule bu tàng jër la. est-ce que bokkul ci poule yi gën a tàng. Euh, boobu ak bi poule B bi. poule B bi tam tàng bi champion bi ak vice champion bi. Espagne Espagne ak Hollande. Mhm. ñoom ñooy joué tey à 19h. ok ay poule yu bokk mbalka la. voilà ay ay poule yu métti la dégg nga yu tàng la. Mhm. bon loolu la ñu andi woon ci wàllu coupe du monde defe naa ne bu dee léegi nag. mën nañu changer discipline comme ni ñu ko kiyee làmb ji. ah jeexaloo nii. non non jeexaloo nii. ah baax na bismillah. kon nag li ngay baax na te bari waaw <clears throat> léegi nag euh, c'est ça euh, ñu ñëw parce que xam nga euh, làmb ji tam dafa am y a des non actualité mm. am na tamit ay wax yu bari yu si am. ba ñu ñu gaañu dafa gaañu woon. Mm. dafa feebar woon da nanga. ñu ñu ñu ànd ci xool kii bi. Mhm. Euh, combat bi. mais euh, am na benn fait boo am na loo xam ne moo gënoon na déterminant dans ce combat là. Mhm. Euh, ñi fàttali na ngay wax combat. Balla Gaye ak Bombardier parce que li gën a kii li gën a kii ci kii bi mooy lenn lenn la. Mhm. mooy que boxe boxe daf ci feeñ. Mm. et booy xool. kii mhm. entraîné boxe. Mhm. Bombardier c'est pour la première fois mu yore ko. ah mu ngi koy soog a yore koy soog a naka la ko yoxe mhm. naka la def ba. Hmm. d'accord dafa toog rek di gis Bombardier ñu koy daan ñu koy kii di koy kii mu woo rek ku Bombardier. la woo ne ko demal wax. Bombardier mooy kii naan Pape Dia. Euh, mag ji. mooy waaw keneen ki la mu ñëw ne ko waxal sa waxal sama waxal sama. na ñëw ma wax ko lan moo ko manqué. Mm-hmm. ma def ko ci moom. Mm-hmm. bu soobee yàlla ci loolu la ci loolu lay gagné. mu jël ko c'était la boxe bi muy kii noonu boxe nag di kii noonu booy xoolaat combat bi. Mm-hmm. am na ci dóor am na benn dóor boo xam ne ñu ñu ngi koy commenté. te dóor boobu moo wàññi Balla Gaye il a misé sur la boxe. booy xoolaat le combat mooy attaqué mooy dóor. moo indi xeex di dóor dégg donc nag ce qui veut dire. mooy que euh, dafa am ay aspect tactique. gis nga gis nga fu nekk voilà gis nga mm-hmm. andi gis nga. gis nga dugg doo. gis nga doo boobu mu andi. ci doo boobu. Ah, waaw am si benn doo boo xam ne boobu doo boobu moom moo kii. moo moo dal. moo sonal Balla. voilà moo sonal Balla parce que ñu bëri nee nañ sax foofu la Balla kawee. dëgg la Balla ci doo boobu la kaw. Mm-hmm. donc ce qui veut dire euh, donc euh, dégg nga. li muy wane rek mooy que euh, c'est vrai. daal bon daal euh, Bombardier dañ ko gënoon tàggataat parce que. la woon ay ay défaite ñu bëri sax xam nga booy seet ci combat bi ñu bëri Balla Gaye la ñuy joxoon favori. c'est vrai c'était le favori. waaw bëri ñu jox favori ci. yëpp daanu parce que bu ñu xoolee Malick Niang contre Ama Baldé. Mm. tout le monde pensait que Malick Niang mooy daan. Mm-hmm. bi ñu ñëwee combat Balla Gaye Bombardier koo wax mu ne la Balla Gaye dafay daan Bombardier mu mel ni daal ren. Euh, carte yi dafa wër. dafa wër Eumeu Sène ak Modou Lô tamit contre Modou Lô ñëpp Eumeu Sène lañ defoon favori. même sax <clears throat> du ci làmb ji rek même ci football bi. Mhm. Mhm. daf cee feeñ. année bi ñi ñu wax ne ñëpp ñoom ñooy xoolal bi ñuy commencé ñëpp dañu ne woon Bayern na moom mooy nekk moom mooy gagné Ligue des champions. Real. Mhm. Real euh, Bayern na toog ñu doo ko 4-0. booy xoolaat dégg nga. Euh, Real ñëw wane boppam. waaw mhm. Real ñëw wane boppam. Mhm. dégg dafa am fu nekk. Mhm. fu nekk dafa am. Angleterre ñu bari dañ ne xel soowuñu woon Manchester City. moom moo ñëw. Euh, Espagne. kan moo mënoon soo Atlético. Atlético. <laughs> kenn. dañ doon ne rek Barça Real. d'accord ñoom ñoo moom euh, championnat d'Espagne ñoo koy jël La Liga. mais tey jii. kii di Atlético dafa ñëw. jël ko. imposé wu imposé ko mu ngi feeñ ci euh, kii bi ci euh, basket bi. Mm-hmm. parce que. Euh, mm-hmm. ci wàll ci wàllu góor yi. Mm-hmm. toog na pour le titre. <laughs> pour le titre UGB kenn moo sóoroon ne. c'est une très grande équipe de basket day toog. Mm-hmm. ñëpp dañ ñëwoon favori la day dem. effectivement waaye toog na mm-hmm. ci cadre bon daal lépp pour wax ne favori yi fi mu nekk nii. favori il faut faire très attention. waaw moo tax. Euh, démb dafa feeñ mel démb. parce que démb favori ki ñuy wax mooy favori coupe du monde bi dañ ko malmené. waaw ba arbitre bi jàpp ci. ne du neex brésilien bi da jàpp parce que loolu du penalty waaw du penalty ngi delluwaat ci combat Balla Gaye ak euh, ak Bombardier mhm. bon na Bombardier jàppale ci combat bi pour mu am ndam dafa renforcer dafa gën a améliorer waat euh, boxam boxam maanaam day day xool fi muy dóor loolu waaw léegi day kii di euh, xam nga day am garde dafa waa am garde di mhm. ñëw di dóor xam nga bu njëkk ba kii doon noon calculer ay dóoram mhm. da doon ñëw ne faat faat faat xoolal xoolal bi ko kii di daan. Balla Balla Beye euh, Balla Beye. Euh, Balla Beye de Baboy Baboy bi ko Baboy di daan. dafa ñëw leen ne faax faax faax rek Baboy ñëw tànk bi rek ne ko faax mu daan. Uh-huh. dégg nga léegi nag loolu moo tax rek léegi moom bii. bii moom dafa ñëw dafa xool. Uh-huh. di avancé di dóor loolu moom uh-huh. mooy la boxe. di xool sa adversaire xool fan nga. la ñu améliorer ci moom. man coach mais itam Balla Gaye waaw. Mm, peut leneen lu ma mën a waxaat. un fait inédit bu am ci làmb ji moo di ni gisuñu nit ku nekk roi des arènes perte titre bi amaat ko te bombardier da ko def. parce que dafa daan Tyson nekk roi des arènes. Mm-hmm. Yékini daan ko mu perdre titre roi bi mm-hmm. daanaat na Balla Gaye mu doon loo xam ne tamit euh, yaakaar nañ ni c'est un fait inédit. waaw waaw waaw c'est un fait inédit euh, c'est un fait li nga wax c'est vrai pour la première fois ci làmb. Mm-hmm. loolu am loolu am euh, kii ñëw jël. Euh, perte ko. ñëwaat jëlaat ko dégg nga mais loolu yëpp ci persévérance la bokk. waaw gis nga nit. bu euh, defet nga dem yi liggéeyiwaat. kii dafa liggéeyiwaat. dafa dem xool lan la manqué. Uh-huh. sur tous les plans du côté boobu rek boxe bi rek de. Uh-huh. am na ñii ñu ngi naan sax sur le plan mystique. même mystiquement dafa dem dafa préparé wu. Uh-huh. dafa defaruwaat. am loo xam ne. da ka manqué woon. Mhm. parce que am yu bëri yoo xam ne man bi ma demee euh, Mbour lañ ma nettali benn affaire boo xam ne. Mhm. bombardier daf ko euh, amul ko woon. Mhm. même buñ doon jéem a di kii doon amu ko woon mooy la population. mbouroise. Euh, effectivement n'était pas adhérée waa ci oto moom bu njëkk ba parce que man dama dem ba tey dañ ma ko nettali ay mag ñoo ma toog wax ma. dëgg la jox ma sax ay wax yoo xam ne révélation yu yoo xam ne doy waar. dégg nga. Euh, ba tax na mais bii nag euh, Bombardier a tout fait. Mhm. pour jéem a effacer loolu. liggéey loolu ba loolu. askan wi ànd ak moom pour ñu ànd ak ci côté ci côté mystique bi booy xool ci combat bi moom Bombardier takkul ay téere yi ay téere yu bëri bien que nag nee nañ côté mystique bi fu mu nekk nii am na ci daf daf cee am daf cee am doole. Mhm. waaw c'est que c'est que sax booy xoolaat euh, dëgg la doo gis ci jour ba moomu kii waaye nag lan la def. balaa muy ñëw balaa muy ñëw. am na solo waaw balaa muy ñëw am na yu mu def am na yeneen affaire yoo xam ne def na ko. Mm-hmm. yoo xam ne yu important. waaw man li ma bëggoon wax ci combat bi rek mooy xëy na sax man du ma du ma sori ci côté mystique bi mais li ma seetlu mooy bi yoon dafa dafa li coach wax dafa dafa defaraat boppam préparation générale la def. dafa ñëw jàngaat box mm-hmm. dafa ñëw tàggataat boppam ci ci condition yu yu yu dëgër waaw dama loolu laa man loolu laa gis ci ci ci kii bi. Mhm. dafa ñëw defaraat boppam mais surtout gannaawam daf ko defaraat. moo tax mu ñëw bëree jom. Mhm. xam nga bu la sa sa sa askan bootee. waaw hmm? am na solo. da ngay bëree jom. Mhm. parce que foofu doo bëgg a yóbbu defet waaw doo bëgg yóbbu defet le fait que population bi jàpp ci. ñëpp taxaw ci pour une fois waaw pour une fois ñëpp. man parce que man man ci semaine euh, ci euh, semaine nu combat euh, combat bi. ñoo ñu ma doon wax ne. Mhm. que ñoom euh, que bombardier euh, gaa yi kii wuñu ci moom ñoom ñoo moo wax. Mhm. ne ma mbuur bi yëpp mu ngi ci ginnaaw. Mhm, moo tax mu bëree jàpp bombardier a réglé ce problème là. daf ko résoudre. ni mu ko résoudre nii la def nii la def nii la def. ba dem xam nga. dem ci population bi war na la nekk man mbuur laa boobu. seen doom laa gars yi ñëw jàpp ci. dem kii xam nga gis nga euh, dëkk bu la jàppale. dëgg la. Mm. pour nga am def boobu day kii de <laughs> ci Balla tam ne nañ dafa gaañu woon. na yoo xam nag man man du ma ci ànd ci lenn quoi. Mhm. xam nga gis nga victoire u bu ko bu ko kii mhm. ko salir xam nga lan la. on a eu aussi ci même kii bi même euh, Yékini aussi bi ñu ko daanee à la fin ne woon ne dafa dafa dafa dafa gaañu woon. waaw xam nga loolu la gars yi di wax ay ay dama feebaroon ay dama gaañu woon ay dama nanga woon non gis nga xam nga lan moo am. dégg nga bu dee da nga gaañu gaañu boo xam ne yow xam nga ne vraiment da lay kii waaw parce que nga déclaré nga déclaré bañ indi ay coow nga dem mm-hmm. bëri bu dee nag kii wala yow nga dem bëri waaye dem nga ba bëri waaw dégg nga mm. boo daadoon ni yooyu yëpp doo ko wax xam nga lan la Bombardier daan na Balla point final Fatou bi waaw liñ ci jàngat rek laa nekk ci dëkk di xam naa nag comme moom volet boobu la gën a travaillé di moo gën a may mu gën a mën a mm-hmm. ci combat bi mm-hmm. Mm-hmm. donc euh, defe naa ne loolu la woon waaw euh, ñaari événement ñaari bi ak football bi ak euh, ak bi xam naa ne waxtu bi daf ñoo kii rek waaye amoon naa ay ay gagu coupe du ah. naa ko mais nag dam koy bàyyi ba beneen comme ça ñu mun ko kii amul benn problème ah bëgg da ci bëgg a rax. non non non ñu dem non non xam nga temps bi. jàmbaas yàqul sër dem ci rek. waaw kii rek bàyyi ñu bàyyi noonu rek eh, ak invité ñu xam ne dañu am gan tey dañu am ñaari gan. waaw gan yi Modou jox nañu ko sax ba pare. waaw ah mu ngoog c'est que Modou yaa ngoog. voilà voilà bon kii non non c'est que fii voilà kii mooy gis nga kii eh, ngay gis Marcelo démb moo moo moo dugal contre camp. ah moom la kii la. kooku voilà xoolal kii moom. lu koy ah, xam nga xam nga. Euh, <laughs> yéene bee ëpp. waaw xam nga luppe moom baaxul xoolal xoolal góol ba moom. góol ba moom génn mu def nii ba toog. waaw non non moom moom. Euh, <laughs> moom ngelaw la jàpp ngelaw. <laughs> ngelaw ngelaw la jàpp. góol ba jàpp na ngelaw boobu la. Euh, trois gag yi gis ngeen Marcelo. moom moom moom nag moom yàgg na ci ay toj-toj. ci mm. dugal démb bi. <laughs> mëninam la daal. waaw yàgg na ci de <laughs> yàgg na yàgg na dafa ay toj-toj gis nga ni ay toj-toj la def. toj-toj la ci biir rek. <laughs> waaw bii moom démb bu démb moo newoon na tas yaakaaru brésilien yi bi mu tojee caax yi. waaw ba ma nekk bii di wax fekk moom moo indi eh, kii bi. waaw waaw nag heureusement Neymar kàngam bi. waaw waaw waaw Neymar moom macha allah. Euh, c'est que sa Neymar gaa ngi wax ne Neymar. Mm-hmm. dégg nga euh, ni mu ni mu ni mu respecté ni muy joué Brésil. Mm-hmm. du ko joué waa Barça parce que démb moom moo décanté situation bi population bi jaaxle woon nañ ci xale mooy fo waaw waaw waaw sport xale ko moom waaw waaw waaw dëgg la dara waru waaye nag na ko no fële Barça voilà waaw te moom daa ma ni fans fans nay maar la xam naa ne xam naa ne euh, tàggat yaram ci boppam daf ko daf ko naan ci sama xol loolu moom <laughs> kenn weranteetu ko discipline boo wax rek mu indi ci contribution bu am solo nga xam ne nga xam ne li muy wax xam na ko <laughs> eh, ñu eh, ñu eh, ñun ñu delluwaat ci taar beauté islamique mm. ak beauté naturelle ak mode islamique Amina Diagne ci petit déj ñëw ci euh, ci ci taar taaru taaru aljuma taaru lislaam ak soxna si taaru naa Diagne macha allah na def. maa ngi fi ajaratu yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant alhamdulilah. tey pantalon nga indi mais bas large. waaw même pas n'importe quel bas large. pas ballage bu stylé nag stylé. li mu indi kañ ne ñëw non non da ngay wax wax bi nag li mu indi. li mu indi. <laughs> li mu indi. <laughs> <laughs> waxoo ko. yow da ngay wax da ngay jëm di saali ji ñu xam ne ñu lu mu indi. waxal maa ko fi nekkal. waxal non dama xam ne dama xam ne. ma ne parce que gis nga ballage bi moom bu ko wane woon day baax mais. day jafe. waaw ju ko jafe. sama saag yi moom jóg di leen yomb Amina feneen la génne. non gis nga li ma indi tey macha allah coach <laughs> wax ngeen ko lu taaru la tey dañoo génne ci pantalon mais pas n'importe lequel nag. du pantalon bu ne ñàpp daal déedéet. Hmm? pantalon bi stylé xam ngeen caaya. caaya euh, voilà gis nga wax ba ñëw na nag gis nga xam nga yow a jéem a caaya yow moom ñëw nag. caaya bii caaya. <laughs> yow gisoo caaya bi et pas n'importe quel caaya caay ñu gën ko xamee ci góor ñun tey fa ñu génne. Ah, jëf ah te xoolal nag ñu ci ànd tey ak sunu gan madame Fatou Ba. rek euh,